Salam alaikum, ziar euh, Birame Ziar, brum Ndiémé buur maa ngi ziar mon grand frère comment tu vas Adieu waay ziar naa la euh, partagé vidéo bi euh, ngir que seet lañu war nañu gën a mën nous allons comme ça ñu commencé parce que aujourd'hui ça va être comme d'habitude très important donc on va discuter de la suprématie blanche on va faire une un rappel vu qu'on avait déjà parlé de ça On va ko un ci live yu euh, merci Bour Y'a waay donc si la yu euh, on avait déjà parlé de la suprématie blanche et euh, on n'avait jamais abordé le thème de du privilège blanc donc aujourd'hui on va faire un petit rappel moi je vais faire un petit rappel de tous ces trucs que j'avais déjà enseigné Hein, di leen ñaan partager vidéo yi comme ça ñu waxtaan parce que li ñuy un solo trop C'est dama invité spécial mon père Ousmane Dramé

léegi euh, comme ko nak xam-xam euh, matul te xam-xam du doy donc dama inviter rek sama père suñu père ñun ñëpp moy père Ousmane Dramé bu nekk fële euh, aux États-Unis mu ñëw gën ñoo yokkal ci li nga xamanteni moy xam-xam bi mu xam ci wàllu woowu donc ñu sekk waxtaan bi gëna a leen expliquer lan moy suprématie blanche ak lan moy privilège blanc à dire que nit ku weex ki lan le fësal bu mu fësal bopam ci aduna bi lan mo tax mu mu koy def ak lan lay tekki ak li nga xamante ni moom mooy euh, beral loxo bi leen waa àdduna bi beral loxo ba lépp lu ñu bëgg a teg seen loxo rek daanaka euh, dina yomb trop ñu teg ci seen loxo wala seen xalaat fës na trop ci xelu doomu aadama yi ba tax na ñëpp ñuy xalaatee ni ñoom wala ñëpp di gisee àdduna àdduna bi nii ni nasaraan si di gisee àdduna bi euh, loolu mu dem ba di ko imposer si àdduna bi yëpp mu jaaxal ñu bari te loolu nit ku ñuul moom bu ci yeewul rek dina fas xas comme ni ma koy waxee dañ ma da nga nga pousser les trucs à l'extrême ma ne leen rek euh, man dama gis ni nit ku ñuul bu fësalul bopam dina mujjé wañéku ci aduna bi wala den ko sàkkal pexe euh, parce que nasaraan si euh, sakal na pexé ay xéet yu bari ci fi ci aduna bi té loolu kenn mënu ko weddi amna na ay xéet yu bari yu nekkon fi ci jamono ji ci aduna bi nekkatuñ fi existé tuñ parce que nasaraan bi da leen boom nasaraan bi da boom sakal leen pexé donc tay ji nit ku ki bu yaakaaree ni mom rek euh, dina euh, tenir tête nasaraan bi ba duñ ko mom tamit boom ba du génn ci àdduna bi ah lolou tamit mi ngi nax bopam donc jar na ñu yeewu ci li nga xamanteni mom moy mooy pexé i jar na ñu yeewu ci li nga xamanteni mom moy suprématie blanche ak privilège blanche yeewu ci fànn yooyu yëpp dañuy tax rek aar suñu bop lolou lañu bëgg lolou moo ñu yëkkati loolu moo ñu tax a ma kay rappelé rek dama am sama invité spécial muy euh, père Ousmane Dramé ñun ñaar ñoy sék waxtaan bi pour expliquer leen ci ci walu wóor parce que man gis na ni père bi ah amna xam-xam ci walu wowo euh amna ci xam-xam machallah dal donc euh, il sera là dans inshallah. Euh, mu mu bok ci waxtan bi dal ñu ñu koy père gis la ci comme ni ma la ko ma am expliquer vite fait après ma dal, lay xana rek nga yokal ñu xalat inshallah quoi légui nak dama bëgg bala ñoy tambali defaat musique de.

loolu la ñuy waxtaanee saa yi ñu koy waxtaanee rek du ngeen bëri ah loolu nag moom doy na waa trop war ngeen di mën a bëri ci waxtaan yu mel nii comme ça di ngeen mën a aar seen bopp ci yu bëri te fii du ñu fi wax dara loolu du ñu waxtaanee lu dul euh, ay mbir yuy aare waaw donc euh, c'est ça loolu moo ñu tax a jóg bu doon fecc lak yeneen daal ngeen bari ci lool kon xasuma leen ŋàññu ma leen waaye war ngeen gën a mën a bëri. wa ngeen ñu mëna waxtaan parce que li tax a jóg mooy askan wi sauver askan wi sauver der bu ñuul bi sauver suñu mbokk sauver afrique lool mo ñu taxa jog kon partager leen partager leen ma tégaat benen vidéo le temps que gaay di dugg ci ma doora tambali waaw inshallah allah allez c'est parti aywa aywa aywa aywa aywa su ngeen ñëwul rek ma tegaat vidéo bi rek ba keroog rek ngeen i fees fii ci bunt bi rek ma ma ma incha allah maa ngi ziar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku nekk sa tuur ak sa sant ku lim jum gis naa ñu bëri waaye di leen delloo ziar maa ngi xaar nag sama ay andi jàmm ñi nga xamante ni euh, ils ont l'habitude d'être là muy ki nga xamante ni ah gis naa oustaz bi oustaz bi il est là oustaz Cheikh maa ngi lay ziar Cheikh Oumar gëj naa laa gis oustaz yaa imaam gëj naa laa gis gëj naa laa dégg bienvenue ci panel bi bu fekkee ne tamit am nga. Euh, lo bëgg sanni ci ci waxtaan wi rek tu es le bienvenu amul ben problème dougalal sa invitation rek euh, inshallah allah ma dugal la amul ben problème. Euh, ma bàyyi wat musique bi dem le temps que sama gars yi di dugg si ngeen partagé ma vidéo bi ñu waxtaan inshallah allez. Maintenant. ni mooy lunette yu raglu yi daal di dugal lunette yi nga xamante ni mooy lunettu euh, professeur wala jàngalekat bi daal waaw <laughs> comme ni mu koy faral di waxee di leen ziar yéen ñëpp ku si nekk si tuuram ak si santam di leen sant bu baax baax seen waay fii ci live bi euh, di leen gërëm yéen ñëpp yéen ñëpp ku lim nag juum gis naa ñu bëri fii maa ngi leen di nuyu di leen delloo ziar kenn ku ci nekk si tuuram ak si santam Euh, donc euh, di contane rek ci gaay yu bax yu ma gis ñu teew ci live bi euh, donc di leen delo njëkkal di leen sante di leen gërëm seen présence pour ñu mëna waxtaan waxtaan bu am solo waaw pour man lu am solo la parce que mus ci waxtaan ak suma gaay fi fii mus ci def ben sujet walu euh suprématie blanche waxtan naan waxtaan nañ fi yàgg na ci live njëkk yi yaakaar naa ne foofu lañ njëkk a commencé sax ma ngi fàttaliku suñu invité yi ñu fi amone ak affaire yooyu ku melni Ahmed Bayla Diop euh, ku ci melni sama oustaz bi teew fi muy Cheikh Oumar Diagne imam ñu ngi lay ziar encore donc euh, don nañ waxtan ci yoyu waxtan ci euh, def nañ ci trois live je pense waxtan ci waxtan yu doy waar mais nak dafa melni ni leerul ci bop ñu bari donc ñuy def rek rappel ñuy def rappel suñu tàmmee tam taamuwee thème bi du caagan ni dañoo bëgg euh, sànni xeer ou bi wala Nous ne nous sommes pas des man je suis pas raciste ni un extrémiste yàlla ma yàlla musal ci haine en wala ku bañ doomu aadama nit koo xamante ni yàlla da ko sàkk doxuñu ci loolu waaye dafa di dañoo war a leeral ay mbir maanaam nasaraan si seen élite yi la ñu wax ñi nga xamante ni ñoo leen jiite ak ñi nga xamante ni euh, ay ignorant leen la plupart d'entre eux maanaam jànguñu euh, bay doxalee nanga nga xamante ni moom mooy lépp lu jëm ci wàllu racisme ak lépp lu jël ci wàllu euh, xeeb doomu aadama wala di ko tuutal rawatina der bu ñuul bi waaw ci wàllu woowu nag la waxtaan pour xamal yu bari naka la tubaab yi ak ñi nga xamante ni ñooy jiitu seen ñooy jiite seen élite yi euh, naka la ñu sampee li nga xamante ni moom mooy euh, suprématie blanche suprématie blanche nag su ngeen ko déggee moom mooy ah tubaab ca kaw ñi ci des ñëpp si suuf maanaam képp kuy xeet bu yàlla sàkk rek boo nekkul nasaraan yaa ngi fete si suuf waaye lépp luy euh, der bu weex rek daal di féetewoo sa kaw. Euh, loolu la ñu bëgg a euh, waxtaanee tey ak li nga xamante ni moom mooy seen privilège maanaam nit ku weex boo weexee rek wala boo amee der bu weex privilège yi nga xamante ni moom la la àdduna bi wala moom la la waaw waaw moom la la àdduna bi carrément di di di teg say loxo maanaam di nga mën a am accès ci yu bëri yoo xamante ni nit ku ñuul ki wala nit ku xeereer ki du ko mën a am accès maanaam yow mi tubaab yaay gën a am accès même ci dëkku nit ku ñuul sax yow yaay gën a mën a am accès ci yenn yi que ki nga xamante ni moom nit ku ñuul la dëkk ci réew moomu le waaw loolu nag euh, lu doy doy waar la ci koo xamante ni comprendrewul ni àdduna bi di doxee ñu bëggoon faram fàcce yooyu rek ma am ci invité spécial am ci euh, père Ousmane Dramé donc bu nekk New York bu bëgg bu nar dugg ak man fi ci live ñu waxtaan ci lolu ngir xamal leen euh, ci domaine bobu donc nak defuñu ko nak ngir en defuñu ko pour nekk ay suprémaciste wala nekk ay parce que mëno di xeex suprémaciste ba paré euh, nekk yow suprémaciste manam mëno di xeex ñi nga xamanteni dañu am en jëmali sa xeet yow ngay am en diko ko jëmali ci beneen xeet loolu euh, dëppoowul ak dëgg donc ñun ñu ci démarche bobu ñun dañu nekk ci démarche jangalé xamalé ngir askan bi mëna a ci yenn yi voilà dans la démarche dans laquelle je suis donc euh, euh, man nag dafa am li nga xamante ni dama ko fonk muy sama xeet euh, xeet yëpp ñëpp képp ko yàlla bind man fonk naa la waaye ràcc jëmale sa boor aayul donc man sama. sama xet sama manam der bu ñuul dal dama ko beral loxo ni ko yàlla berale loxo man non la ko bëgg berale loxo ba taxna lépp lu nga xamanteni xamna ko rek bëgg na ko fessel jëmele ko ci ñoom bala ma koy fessel diko jëmele ci benen xet lolu rek la waye du ciaga ni dama am problème parce que amna ay xaritu tubab amna ay xaritu nar yi nga xamanteni limay wax ni ñoom dañ koy dégg bu baax te duñ ci am benn objection lu may dal yene nit yu ñuul yi nga xamanteni comprendre ma fu may waxee ñooy ñëw di am objection si may wax alors que ay tubab dañuy ñëw tok toog ma wax ñu approuvé ko euh, la semaine dernière rek gis ngeen ko sama live jeudi dernier gis ngeen tubaab bi fi nekkoon ah euh, amul ben problème ak sama idéologie mom elle est d'accord parce que si deug lañ ko tek waaw ah, ak ay gëstu yu wër voilà donc euh, di len ziar di len ñukel di leen delloo njukkal di len wax bismillah ngeen axé si si li nga xamante mom moy suñu waxtaan Cheikh omar wa deug la wa lu am solo la wax bi waaw il y a beaucoup de manipulation tout à fait donc du coup il faut éclaircir un petit peu pour que mu leer ci bopp nit ñi yi nga xam ne ñun en euh, taxuñoo jóg ñun song kenn taxuñoo jóg ñun defar rek moo ñu tax jóg yàq taxuñoo jóg waaw donc euh, loolu daal foog ñu leeral ko mu leer nañu si bopp jaam yi comme ça ñit ni bañ a xam ni wala bañ a foog ni ah ñii de di jug di wax ci der bu ñuul bi dañoo jug bëgg am benn lu ñu bëgg a seen kuréel bëggu ñoo créer dara ñun daal li fi nekk muy dëgg moom lu ñu bëgg a te suñu maam yi euh, comme ni ma koy waxee euh, yu mbaax yi ci mel ni comme ñu may faral di citer maam Ahmadou Bamba maam Alaaji Malick maam Limaamu ak maam Bukkunta ak maam euh, Baye Niass euh, ak maam Alaaji Malick wax naa ko baamtuwaat ko euh, donc yooyu ñu fi fësal yooyu ñu fi yàgg teg ñun yooyu la ñu bëgg a fësal la ñu bëgg rek faram-fàcce ko ku ci nekk nag am nga domaine am am nga domaine bi ngay faram-fàccee mbir yi amna ci ñoo xamné alcorane lañu gëna maîtriser ak l'islam man sama walu mi ngi ko maîtriser euh, ci walu lepp lu jëm ci walu bon ésotérisme ak euh, peut-être science occulte maanaam xuusuma si trop trop wala métaphysique wala lepp luy euh, ci walu bible bi affaire yoyu hein ah, au niveau de la chrétienté affaire yoyu parce que dafa am fuma ma jaar jaar jaar la rek waye du caagan ni man ab catholique la wala du caagan ni man ab ab yéefër la wala du caagan ni man damay xeex quoi que ce soit donc yalla ñu yalla mussal ci yoyu ak Cheikh Anta Diop waaw waaw ak Cheikh waaw wax Mohamed Al Bashir. donc loolu la rek donc ci waxtan yoy lañu bëgg euh fess ngir jangal askan bi ñu ngir ñu yeewu ci li nga xamanteni mom moy li waja euh, ak ci euh, fan yu euh, yi ñëw ci kanam on est on sera obligé di leen confronté wu ak li nga xamanteni mom moy mooy euh, li ñuy woowee wala li li li religieux di woowee axiru zaman la fin des temps et cetera et cetera et toutes ces choses là euh, soo ngeen ko xamul du ngeen mën cerner li nga xamanteni ni moy mooy euh, tourner autour de ce phénomène là de de la fin des temps et tout ça donc faut savoir toutes ces choses là pour savoir fan la tek suñu tank ak ñan lañ ko sékkal voilà kon nak ñi nga xamanteni ni lañ ko sékkal la plupart ñi nga xamanteni ñoy ñooy euh, ñooy mener mun wax la vue dure à l'homme noir euh, seen der nak dafa xawa wex euh même bu dee sax amna na ñu may dégg souvent ñu naan der bu ñuul mom moy noonu der bu ñuul euh, lolu man duma ci faral di d'accord souvent waye deug la amna ci yenn cas yi nga xamanteni nit ku ñuul moy gëna a sonal moromam nit moromu nit ku ñuulam euh, lolu mom c'est le vrai donc comme toi bi diko waxé euh l'ennemi de l'homme noir c'est l'homme noir en lui-même mais moi j'aime pas dire ça j'aime pas parce que non seulement c'est pas vrai parce que l'homme noir a été conditionné pour être l'ennemi de son frère mais il n'est pas de nature euh, euh, haineux envers son frère. Il n'est pas né haineux envers son propre frère. Je pense pas. Mais il a été euh, dénaturé, il a été lobotomisé, manipulé pour se retourner contre les siens. Man que l'ennemi de l'homme noir c'est l'homme noir. mais

prolétaire manam les pauvres ak ñi nga euh, en général amuñu euh, moyen wu dem jangi ba ba xam nit ñi ci kaw dañ leen manipuler man ma ngi wax ak ñi nek ci kaw ak tirer ficelle yi pour doomu yi ci wala problème ba nga ñu ko ci lenn euh, race dégg donc donc race tour bobu mo xawa doy war mo invention la parce que il n'y a qu'une seule espèce humaine il n'a qu'une seule race pardon euh, après dafa comme je l'ai ko constaté d'après sama que ay espèce espèce hein, l'espèce humaine tu vois mais race ben, rek le wax yàlla sàkkul ay doomu adama yu différent yu manam yu génétiquement différent parlons de génétique mais ben race rek le sac euh, nit yëpp wàcc ci ci ci race waye waaye fa am euh, original ak ay copie dafa am original ak ay copie loolu la rek waye ben race mo am nak euh li nga xamanteni ni lañu la mom lañuy ubbé suñu waxtaan avant may euh, Père Ousmane di dugu. xana ma expliquer leen rek man lima ma jangat ci li nga xamanteni mom moy euh, white supremacy ni ko anglais bi di waxee wala suprématie blanche lan moy suprématie blanche lan moy suprématie blanche alors euh, supremacy blanche beaucoup dégué ce n'est pas basé sur le fait que tubabi bi dafa am suprématie manam dafa am numu mu la le physiquement wala numu mu la gënee génétiquement wala numu le la intellectuellement bo déggee ñu né suprématie blanche amna na lu ko waral parce que bu ngeen démé ba jangat ci euh, ñett yi ma cité manam génétiquement physiquement wala bokk euh, intellectuellement di nga gis ni bu dé suprématie lañuy wax ci ñet walu woowu tubab bi wu la ci dara manam bu né génétiquement la euh, euh, scientifiques, les médecins biologistes i recherche études yu ont takku études, qui ont ngeen ko gëstu ont nga ci li nga les groupes sanguins les groupes sanguins et le humain les groupes sanguins par exemple le O négatif. Le O négatif, Boyset, c'est le groupe sanguin le plus ancien hein, que, qui, existe sur Terre. Mon moi, pratiquement le premier. Mon moyen euh, le plus... Euh, euh, le, le, plus... le plus ancien, quoi, le premier pratiquement ayant existé sur Terre. Et après, il y a eu des dérives. Hein, il y a eu du O+, d'accord. Donc, O négatif, moins le O avec le moins à côté, le trait là, comme ça. Et, et puis après, tu as le O+, d'accord. après, tu as... Parce que plus beaucoup de guerres moi, positif. Hein? plus, moins positif. Après, tu as le A, le A négatif, le A plus, le B, le B négatif, B plus, aussi positif, etc., etc. Mais le O négatif est carrément celui qui a été le premier à apparaître sur Terre. Donc, on a retrouvé le O négatif dans le génome du premier humain, moi, en fait les premiers hommes sont descendus euh, leur berceau c'est euh, le berceau de l'humanité c'est l'Afrique. Donc, si on se concorde à li Warni avec euh, aussi vous dem aussi def recherche hein. je veux dire allez faire vos recherches ne croyez pas mot pour mot ce que je dis donc yoruma dëgg euh, ngeen dem ngen def sen comme ça vous am lu len leer salut Fadialo maa ñu ngi la don xaar tardé dara hein. c'est pas grave euh, donc allez faire vos recherches et vous allez vous rendre compte qu'en fait euh, que le euh, le groupe sanguin O négatif est un des premiers, un des premiers à être apparu sur Terre, donc un des plus anciens. Et le reste est dérivé de ce O négatif-là. Donc moi, j'ai l'habitude de dire ne croyez pas ce que je dis, allez faire vos recherches et confrontez-moi cette vérité. Euh, comme je dis que ça m'a <laughs> que j'aime bien, Johannes qui me regarde, fait, des fois, lui, il vient et il se, confronte à moi. Moi, j'aime bien parce que ça amène un challenge, ça amène euh, euh, des discussions et on peut, parce qu'il vient, des fois, il me dit non, non, mais et c'est ça, en fait. Donc, vu que j'ai pas la science infuse, j'aime bien aussi que certaines fassent leurs recherches pour ñëw euh, ne ma ah moi j'ai ça ou j'ai autre chose c'est ça faut faire xam-xam di comme ça tout le monde peut apprendre de la chose donc c'est ça rek le mot non. donc euh, Johannes maa ngi euh, pendant pendant en même temps donc voilà donc vous vous rendez compte qu'en fait si c'est génétiquement, si c'est intellectuellement et si c'est euh, physiquement, euh, la supériorité, l'union, la suprématie blanche ne tient pas en ces trois choses-là. Parce que déjà, génétiquement, le premier gène ou le premier groupe sanguin ou le groupe sanguin le plus ancien, mais le groupe sanguin, nous au négatif là. donc mon jiitu ci àdduna bi donc bu de ci àdduna bi moo fi bon bu fi njëkkee rek boobu tubaab bi amagul naar bi amagul chinois bi amagul nit ku ñuul rek fi temps. donc loolu war na rek ah bu dee jiitu la ci àdduna bi ak njëkk fay nekk ah loolu euh, dina firndeel lu bari dina firndeel ni nit ku ñuul kooku am O négatif boobu moom moo njëkk a muus ndaxte moom moo njëkk a jàng euh, bu leen fàttali. fàttali intelligence tekkiwul dara ludul la faculté d'adaptation donc loolu intelligence di tekki leen té intelligence c'est que t'as une faculté manam am nga meun meunu adapté wu ci ben climat wala ci ben lieu wala ci ben endroit wala ci ben voilà atmosphère mun nga ci euh, adapté wu manam mun nga dëkk ci fofu nonou dingue donc du coup vous faites qu'elle am nga intelligence une faculté ou adapté ou si c'est environnement loolu rek intelligence lay tekki dem Google donc l'intelligence signifie justement et tout simplement la faculté d'adaptation voilà ce que signifie l'intelligence donc du coup les premiers hommes donc venant de la du berceau le berceau de l'humanité donc l'afrique était forcément euh, ay donc ils ont eu

automatiquement ça leur donne quelque chose bigno en deuxième lieu moi l'intellectuel donc ils ont commencé à réfléchir et ils ont commencé à construire à fabriquer des habitats des outils pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir euh, survivre dans leur environnement donc il a fallu être intelligent il a fallu réfléchir etc après est venu euh, justement l'écriture et la etc euh, et toutes les autres choses qui, qui, qui, en suit. Hein? Et après venu plus tard peut-être la spiritualité, etc. Mais en tout cas, Boudé, la suprématie blanche est basée sur le fait que le blanc est supérieur. Ça ces trois choses-là vont définir pourquoi il est supérieur. Donc, ce sera une supériorité génétique. Hein, Manam ci deret lay euh, biologie Manam ci l'inga li euh, yaram euh, physique Manam ci wàllu taxawaay katan ak men men, ak li nga intellectuel intelligence. bu faites supériorité foofu lañ ah dafa nit euh, xaw len devancer ci wàllu woowu lool nak waxuma ko ndax man mi dama bëgg a sama bop comme étant un être euh, supérieur à qui que ce soit mais dafa di rek pardon excusez-moi j'ai quelque chose à faire ngeen baal ma maa ngi jégalu dafa mel ni nit ku ñuul euh, am na fi nga xamanteni rawé na fa morom ma moy manam bu dé li nga xamanteni mom ñom lañuy la ni euh, euh, physique la

Euh, euh, wàllu physique la maanaam euh, lépp lu jëm ci wàllu sport lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram ak lépp lu jëm ci wàllu maanaam mën kàttanu góor ci physiquement ah dafa mel ni nit ku ñuul su ngeen ko seetaanee walla ngeen dellu sax si si ci archives yi sportif yeeg lépp nit ku ñuul fësal na boppam. fépp ba wane dal ah walu katan dal walu mën-mën ah, don nañ ci ño xamanteni dal mari day tali manam amuñu morom waaw aduna bi yep xam nañ ko ñëpp nangu nañ ko ni lepp luy tagat yaram ak lepp li nga euh, euh capacité physique euh, ñun dal fess nañ ci nit ku ñuul dal fess na lolu na ni wu len man sax ma leen koy indil ay preuve gisal ngeen ko sen bop donc mu don lo nga xamanteni aussi ah ñu wax ni rek ci benen bi manam côté physique bu supériorité fofu lañ koy xolé euh, euh donc xawna doy war parce que fofu dafa melni ñom tamit daanu nañu ci walu wowo légui buñu démé ba xol ci li nga xamante mom moy intellect manam ñom dañ né ah nit ku ñuul de en général musul ah yeewuwuñu dañu am QI ba nga xamante dépassé wul euh 50 wala manam euh, sen sen baromètre yoy ñu fixé ah, j'ai pas les chiffres en tête et tout mais ñom ne dal euh, nit ku ñuul daal xelam daal yeewuwul manam xélam dal dafa xaw voilà dafa xawa Nek xelu xalé euh ba taxna ñom ño gëna gën nous, bi nous, neen ño nous, euh, li nga xamanteni mom ont été luy invention ba nga xamanteni nous, rek ñom ñoo ko créé nous, ko euh, nous, a am ay ay ay ay ay ci def ci aduna ba taxna ñun dañoo wara top seen wala aduna bi yëpp dafa sauf que dafa am la nga dañ li nga inventeur wala

nous, euh, attendez vite fait ci ay une yu brillante nga inventé mon avons cité quelques-unes pour ne pas être trop long Nous avons cité quelques-unes Nous avons cité quelques-unes comme par exemple. Euh, euh, comme par exemple Howard Lewis Latimer kooku xam ko par exemple xam naa yéen ñëpp ngeen defee recherches inventeur noir hein, ngeen def Google Vous dem tapé inventeur noir tu Google di ngeen y a beaucoup de noirs qui ont inventé pas mal de choses euh, Linux nag su je me répète en fait ça fait des années que je dis ça en fait et j'ai l'impression de me répéter parce que c'est des choses que tout le monde enfin beaucoup de gens savent aujourd'hui avant ils savaient pas mais aujourd'hui ce n'est plus euh, ce n'est plus approuvé quoi je veux dire man man j'ai l'impression de de me répéter mais la répétition est pédagogique, donc c'est bien de répéter comme ça, ça rentre bien dans la tête des gens. Donc barne nous répéter de temps en temps quoi, pour que nous tout quoi, tu vois. Donc euh, mais c'est des choses en fait que je discutais, euh, je disais ça avec des copains il y a 5-6 ans. Euh. Maintenant rester là le répéter encore barne. donc ça permet à certains jeunes qui nous écoutent de savoir, et c'est ça qui est. Je m'excuse, on m'a appelé en plein live. donc voilà, donc. Howard, Howard, H-O-W-A-R-D, Lewis Latimer, Lewis comme Lewis, hein, Latimer. Euh, il a contribué, Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps. Euh, il a contribué à la création de l'ampoule, donc ancien fils d'esclave, et il découvre aussi le, le, filament de, carbone. D'accord euh, Donc voilà, il y a lui, il y a euh, euh, Gareth Morgan, un homme qu'on appelle Gareth Morgan, qui a inventé euh, la masque à gaz, le fer à repasser par exemple. Il y a un mec qu'on appelle Grandeville Théoudé, je crois. Il a inventé l'interrupteur. Gérard Lewis qui a inventé la télécommande, les micro-ondes, les frigérateurs, la machine à laver, etc., etc. La liste est longue, longue, longue, longue ce que vous faites c'est que vous avez un petit internet vous vous tapez euh, inventeur noir, vous allez voir qu'en fait qu'il y a beaucoup de noirs qui ont inventé beaucoup de choses dont on utilise aujourd'hui. Qu'on croyait que nous yakaroni, tout va bien sak, tout va bien créé, alors qu'aï nit nous n'y créé. Donc finga hamanteni mom le tout abni don nous indina nous aï nit kunyul amul intellect ak mousol ak yewoul aï golo la ñoo affaire yu démé nonu euh koku xam nga daanu na ci côté bobu amna ci benen côté ba nga xamanteni euh dafa xawa daanu aussi waxon nako ci ben moi quand je vous parlais du RH donc positif moi le ressus euh, qui est dans le sang vous dit c'est O négatif positif plus beau c'est que le sang est contaminé par le ressus et euh, malheureusement même si euh, certains noirs ont le Ressus, euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, extrêmement beaucoup de locodermes qui ont ce Ressus-là. Bon, ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé. Je ne vais pas revenir dessus. Demlengen Hall dans les anciennes lives et vous verrez justement euh, euh, toutes ces choses-là. J'avais déjà parlé et abordé. Je vais pas revenir dessus. D'accord Donc, vous faites que moi la suprématie blanche. Ah, ça ne tient pas debout parce que ces trois choses-là, euh, ne tiennent pas. Ces trois choses-là ne tiennent pas et n'ont pas de sens. Voilà. Euh, donc, euh, si c'est intellectuel, ça tient pas de sens parce que des intellectuels noirs qui ont fait des créations pour faire avancer le monde, il en a existé et bien avant. Boulan Fateni, l'Égypte par exemple et les autres, la Mésopotamie et etc. etc. D'autres peuples même qui ont disparu de la planète et qui ont inventé beaucoup de choses. Comme je vous ai expliqué, moi, les premiers hommes qui, ont qui sont arrivés sur Terre ont dû s'adapter à leur environnement. Donc forcément, qui dit adaptation dans son environnement, dit intelligence. Donc si c'est l'intellect qui euh, constitue l'intelligence, à ce niveau-là, la suprématie, elle tombe automatiquement. Alors, mais en quoi tient la suprématie blanche Alors c'est quoi la suprématie blanche L'outar suprématie blanche n'est que alors que yi nga cité ni te ah kon la nuit définir encore la moy suprématie blanche euh, Johannes c'est une domination militaire et économique c'est une domination militaire et économique le la Johannes wax mais euh, man dina d'accord côté bobu waaw c'est une domination militaire et économique mais aussi il y a une idéologie Il y a une idéologie du domination militaire et économique Johannes ça c'est un truc euh, c'est des trucs flagrants yaa euh, par exemple moi je veux le définir comme ça je l'ai défini comme ça j'ai réfléchi longuement réfléchi à la chose et voilà la définition que j'en ai Nako ko wax ci nasaraan xawma ma di ngeen ko comprendre nako ko tek ci wolof ba xam euh di ngeen ko comprendre euh, voilà donc man définition bi la ci am donc dama la suprématie blanche bi moko c'est quoi en fait mané c'est l'illusion ngeen corrigez-moi si vous comprenez pas ou vous avez euh pourquoi ah soit, de dafa am euh, comme euh, pour euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé moi qu'est-ce qui s'est réellement passé si je rentre dans le domaine ngeen ma def benn un petit parenthèse avant que may répondre qu'est-ce que c'est quoi la suprématie blanche lan moo ñu dalee kii question la mu ne ma nous pourquoi ñun ñoo njëkk si nous mujjee seulement qu'est-ce qui s'est réellement passé Mandé de su ma defee bi ma defee sama jangat. Euh, su ma jëlee lépp teg ko ci diine dinaa la pour bañ ci xuus damay bàyyi ku mel ni Cheikh Oumar Diagne gën a dugg ci wàllu woowu la lan dal kooku laay moom laa koy baye mu wax la expliquer la ci walu diine lan moo ñu dal deugantane ba ñun ñu ak fi ñu àgg nii mais suma ma dugg ci diine dugg ci li nga xamanteni mom moy euh, une comment s'appelle euh, une autre perspective justement de la chose euh, mooy euh, li ñu dal moy dafa am li nga xamanteni mom moy notel ba nga xamanteni dañ ko jël tek ko suñu ko mo naw manam esclavage duré plus de 1700 ans wala luko luko luko ko lu euh, ak esclavage li nga xamanteni mom moy nasaransi lolu dafa am lu muy def génétiquement suñu yaram fay changer suñu ADN loolu jàngaloon na len ko wax na leen wax expliqué na len ni euh, la souffrance euh, laisse des traces indélébiles au niveau de l'ADN et on se le passe de génération en génération dafa am lu bari ay torture le traumatisme colonial merci Bettison le traumatisme de l'esclavage et le traumatisme colonial. Ça a laissé des traces indélébiles au niveau de l'ADN de nos ancêtres qui nous ont filé, donc nous ADN. On a les marqueurs dans nos gènes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de choses dont on a peur, il y a beaucoup de choses alors que normalement, tout euh, le wala amna ragal yu ñuy ragal amna yenn peur yu ñuy am amna yenn yenn yenn gis yenn yenn yu ñuy am du yoon traumatisme la bo xamanteni ni euh, science bu def étude bu leer nañu ci lolu partager woon sama Facebook nako partager wat pour ngeen xamni science ay scientifique def ay étude ci walu wowo carrément ni souffrance bu ko nit dundé day marqué wu si li nga ni ADN ADN ADN dafa rek ben clé USB clé USB et sa yaram bi moy ordinateur bi yaa ngi dégg sa yaram moy ordinateur et ADN clé USB la té ADN day enregistrer lepp lu sa yaram di dund ci walu bu ne lepp lu sa yaram di dund lepp lu sa yaram di def lepp lu sa yaram di wax lepp sax lu sa yaram di naan lu sa yaram di lek lepp luy dugg ak génn sa yaram lepp luy dugg ak génn sa bët bi lepp loy dégg lepp lo lepp lu mënti doon lépp li la wër ADN day dugg ci bir day da koy enregistré sa yaram da koy Madame, les loo que ton corps l'absorbe que ce soit au niveau de la vision que ce soit au niveau de l'aura que ce soit au niveau de l'odorat que ce soit au niveau justement du goût qu'au au niveau de la peau parce que c'est un organe aussi tu vois qui qui prend aussi même les rapports sexuels aussi Les lu les plus, doon lu ADN bi enregistré de A à Z donc, on est enregistré. et ci kaw ADN bi il change en fonction de ton environnement de ta situation de ce que tu fais ce que tu dis en fait de ce que tu es

bien sûr mun nañ dem sax amna yene étude yu dem ba si sax ni bo feebaree à travers justement euh, mun nga dem ba accès si nga xamanteni mom lañuy wax l'auto guérison maanaam mun nga faj sa bop sans pour autant jaar ci médication. donc gis nga nga gis ni traumatisme yooyu ngeen jall dans le passé wala sa mam jall ko dans le passé mun nga ko moñu wala mun nga ko changer wala mun nga yok yow yenen information yenen information si ce ADN ba mu dal di euh, manam nëpp wala muur yooyu information négative yi nga xamanteni mo lay empêcher wala mo lay téré nga ag ce, ce nga euh, laal sa objectif par exemple c'est tout à fait possible science day wax nako nak xam nak man nak expéri maa maa ngi expérimenté ay mbir nak mais xaw ma la laa ni man ma am deug ni ci li may wax mais sama jàngat bu ndaw rek may ma ma am geustu su lol Johannes néna comme la religion quand on grandit dans le dogme on a une certaine on a une certaine peur je veux pas rentrer dans ce domaine. On parle pas de religion, on va parler de la suprématie blanche. Alors, mais certainement, tu as peut-être raison, j'en sais rien, mais on verra bien. Alors, donc moi, voilà la définition. J'espère que Mohamed El-Bashir, tu as ta réponse par rapport à, ce que, ta question. Donc je continue sur la suprématie blanche. Après, nous double Père Ousmane Dramé, Moubagne Koutou. Alors, c'est euh, pour moi la suprématie blanche tekkee lima ma tekki si njalbeen ba paré wax len ci ñetti fan yi nga xamanteni ni ci lañuy ñuy sen suprématie bu dee ci ñetti walu yoy la bolé ci wala rax ci doli ñaari wàll yi Johannes rajouté muy la domination économique et la domination militaire wax na dëgg pardon loolu tamit si la bokk waye buma ci yokkee ñet buma ci yokkee euh, ñet yoy manam domination génétique intellectuelle ak physique ñom dafa melni sen domination taxawatul ci dara daanu na c'est l'illusion de s'autodonner une position d'autorité basée sur de fausses allégations non certifiées acceptées par le monde répéter la suprématie blanche c'est quoi c'est l'illusion de s'autodonner une position d'autorité basée sur de fausses allégations non certifiées et acceptées par le monde donc ma tekki illusion la l'ours luxus la wala la suprématie blanche de se donner manam c'est l'illusion c'est ab nax la ab ab ab luxus la wala ab lo xamanteni ni euh, ab ab ay fen la mun naa wax noonu laal lañ ko waxee vulgariser ko waaw ñu né ay fen la ay fen la ya nga xamanteni euh ñom dañ koy jëfëndiko pour se jox sen bop ben gëdd ba nga xamanteni mom moy mooy gëddu autorité hein euh ya nga xamanteni ni gëdd autorité ay fen la daal ya nga xamanteni ñom dañ ko jël pour jox sen bop ben gëdd ba nga xamante ni basé wuñ ko ci dara lu dul ay kàcc te àdduna bi yëpp nag fësal ko ba àdduna bi yëpp nangu ko ab gëdd la maanaam ab fen la ba nga xamante ni ñoom dañ ciy jox seen bopp gëdd gëdd ba nga xamante ni basé wuñ ko ci dara wala teguñu ko ci dara luy dëgg gëdd boo xam ne teguñu ko ci dara luy dëgg jox ko àdduna euh, bi ba àdduna bi yëpp accepté ko te alors que seen gëdd boobu c'est pas certifié Euh, euh, donc la suprématie blanche donc c'est l'illusion de s'autodonner une position d'autorité basée sur de fausses allégations non certifiées et acceptées par le monde pour moi c'est ça la suprématie blanche donc madame, loolu lan laa ci euh, supérieur à travers la di di hiérarchiser du madame di bu ngeen ko xoolee am na ay jamono ñu créé li nga xamante ni moom mooy euh, euh, euh, wax ne dañoo war a Euh, wax race yi euh, fan lañu euh, kan mo supérieur ak affaire yoy fi lañ démé Afrique di jëm nat race ya yi yaa ngeen jamono colonial pour mën justifier sen esclavage ñom ils se sont basés sur des écritures manam comme la Bible wala comme yenn écritures sur comme par exemple la malédiction de Cham beaucoup comme les nar ni ko défé ci pour wax ni rek nit ku ñuul dal mom dal yàlla da koo mbugal ba mu ñuul donc mom dal amna pour def ko jam après tout ils ont eu la bulle papale la bulle papale donc c'est comme um, c'est comme euh, le, le, comment s'appelle euh, les, les, musulmans les musulmans Nari euh, euh, à l'époque ils se sont justifiés par rapport à des écrits saints là là les portugais par exemple pour pouvoir aller attaquer l'Afrique et tout machin et euh, prendre les, les noirs et les asservir lan lañu def dañu dem le pape mu jox justement maanaam carte blanche pour ñu def lolo voilà donc si dit la ñu lolo loolu loolu amoon li nga xamante ni euh, colonialisme pour def ko pour mën dugg ci xelu sen mbokk tuba bi manam la classe prolétaire et tout la population fallait que ñom ñu prouver parce que jamono joju science commencé na feuss si si si bi ñi ni ngi commencé di def ay recherche scientifique yu bari pour mën feussel sen bop dal donc euh, donc donc euh, ils ont il a fallu qu'ils aillent justement euh, euh, euh, créer justement cette foule qui va autoriser les autorités, madame les élites, à aller en Afrique et à coloniser les Africains, soi-disant, parce que c'est des races qu'il faut éduquer, qu'il faut élever, qu'il faut carrément civiliser, en quelque sorte. Donc pour se donner justement cette, cette pour jox seen pour euh, cette euh, genre euh, autorité hein c'est justement la paternité qu'ils ont cette éternelle paternité madame cette éternelle wax les nars sont des éternels en les les pardon les Noirs sont des enfants donc il faut paternaliser pour faut mettre sur le l'échelle de de la civilisation etc ils ont ce truc là ils le font jusqu'à présent ils sont sortis de leurs écoles et tout même ton voisin hein, des fois ce copain bi nga il peut avoir, c'est-à-dire ton pote blanc avec qui tu traînes, il peut des fois lui-même avoir cette attitude de paternel, de, de, pater envers toi noir, croyant que parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué et sûrement que son père lui a passé l'ADN de, de, ce qu'il a reçu de son grand-père et qui a été justement berné par cette illusion de, d'autorité basée sur des fausses allégations non certifiées que je viens de dire. Hein, si vous comprenez bien ce que j'explique, c'est ça en fait. Le pape Nicolas V, merci Steve Biko. Donc euh, ce pape-là leur a donné euh, à, l'époque les Portugais, les, conquistadors et les esclavagistes, donc l'autorité ou la carte blanche pour venir sur les terres africaines et de mettre en esclavage les Noirs, et ben là, pour justement euh, les philosophes des, des, temps modernes, bah, il leur fallait justement pour prouver leur théorie scientifique ñeu ci sur euh, sur euh, euh, la hiérarchisation des races quand même nit nit doomu dafa am nga xamanteni yalla da leen ci kaw am ño xam ci digg golo lepp ñu ko théorie bi nga mi Darwin Darwin bobu temps nak fekk na ñom ñu bokk am am sen sen ay nga ay et puis ay raciste la en plus la plupart du temps bëgg ci donc ils ont commencé à créer des théories farfelues euh, ba bëgg a hiérarchiser euh, doomu adama yi euh, ba créer li nga xamante mom moy notion race dal di wax ni race dafa am ni moy race blanche li moy race noire li race négroïde lañ koy waxee la race mongoloïde la race caucasienne et cetera di définir sen bop dal après ñu def sen ay dessins hein ah, dal di dessiner nit ku weex dal di dessiner nit ku chinois asiatique ba pare dessiner nit ku ñuul après après si suuf ñu daal di def golo kon nag nit ku ñuul moo gën a nduróog golo ñu ne daal nit ku ñuul moom mooy li nga xamante ni ah moom mooy euh, euh, euh, parti bi nga xamante ni ci doomu aadama évolué wul ah ba moom moo ngi toll si stade ba nga xamante ni li mu sorek golo bëriwul donc bu ñuy ñoom nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy tubaab yi ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo évolué ñoom ñoo parce que Darwin loolu lay jàngal la théorie de l'évolution loolu lay jàngale la théorie de l'évolution maanaam nit mala la maanaam benn la après mu évolué évolué évoluer mujjee nek golob ba mag nek nekk nit taxaw ñoom loolu la gëm ñu man nak sama gëm-gëm nak man mënu ma ko wékk ci loolu man bokuma ci ñuy xalaté noonu loolu goomako ko goomako ëlëk ko donc nak ci gëm-gëm bobu pour mëna fessel sen gëm-gëmu raciste ba pare fessel sen bop ci àdduna bi il fallait que ñu baser wu sur des fausses allégations non certifiées parce que aujourd'hui même la science est en train de contredire Darwin ni loolu théorie d'évolution bobu muy teg tegu ko ci yoon tegu ko ci dara loolu teguwul sax parce que aujourd'hui parce que à l'époque on n'avait pas assez peut-être de matériel pour aller prouver que ce que le Darwin il avance, que c'était fausse. Euh, et là, aujourd'hui, en 2018, science mi ngi évoluer mi ngi avancer, a ñu ngi am matériel ñu ngi am euh, ay ay façon euh, set yu bari yo xamanteni mi ngi fësal comme quoi que ni en fait Darwin était carrément à côté de la plaque d'accord donc l'évolution ne tient en rien parce que si tu xool bu baax da leen arranger ñom tuba yi la théorie de l'évolution parce qu'aujourd'hui ils se sont servis de cette théorie là pour di wax ni ñom ñoy li nga xamanteni mom mo évoluer ci nit ku ñuul pour mëna nek nit ku weex dal di nek li nga xamanteni mom la yalla gëna fonk gëna bëgg gëna teral gëna béral loxo ñom tubaab si ah lool nak bu ko tubaab yu mag yi diko wax sen tubaab yu ndaw si manam, ñi nekk ci suuf manam la classe prolétaire manam, les pauvres ak les paysans et cetera la population ba à un moment donné fay galvaniser da fleni di manam day day day am lu muy yëkëti ci ñom day am lu muy yé ci ñom loolu muy yé ci ñom mom moy dañuy funk sen dënn ah man ma gën ki parce que loolu day manam live expliquer ton ego euh, à l'époque coloniale il euh, y avait aussi ce qu'on appelait les les les les euh, comment s'appelle les zoos humains les zoos humains en France par exemple il y a plein de documentaires hein, je crois que c'est un historien qui s'appelle Blanchard qui est en train de faire des documentaires extraordinaires là-dessus c'est un toubab aussi qui veut lui aussi réhabiliter la vérité et il donne aussi les origines du racisme il donne justement ce qui a permis euh, euh, le colonialisme euh, sexuel d'accord quand colon yi doon ñëw Afrique di japp jigen ñu ñuul di len di len di photo ak ñom di len ah, di def ay actes sexuels yo xamanteni ni wuñ ko won def seen jabar jabar di len photo tout nu affaire yo di len troxal c'était vraiment inhumain de faire des trucs comme ça c'était irrespectueux en plus di def ay actes pédophiles fofu def len ko lu lu bari ay milliers de photos la ñu retrouver ay milliers d'archives et donc à cette époque là euh, euh, ils, faisaient ces photos-là, en fait, dans le seul but de montrer à leurs femmes, comme ça leurs femmes, mais à ah, nous, comme que ces femmes-là, ils sont comme ça, nous, on va euh, être un petit peu pudique et puis ne jamais montrer nos seins, ne jamais montrer, parce qu'en en fait, ils avaient l'habitude de montrer la femme noire tout nue, avec les seins nus, etc., etc., pour que, madame, dévaloriser l'autre pour pouvoir galvaniser un autre groupe donc c'est ce qu'il faisait tout le temps dañuy ce suñuy ay jigen pour me valoriser ce i à travers l'image donc c'est ce qu'il faisait euh, donc tu tu tu tu on passe rapidement après ma dugal oustaz bi ma dugal euh, pardon Cheikh euh, sama invité Ousmane Dramé donc comme que comme vous voyez donc là rek la def ils ils font suprématie blanche comme par exemple vous voyez, ko ci Égypte dañuy jël sen kanam dugal ko ci li nga xamanteni euh dafa am importance pour euh, war leen ni ñom ñom ñoo jitu ci aduna manam lepp li nga xamanteni amna importance ci aduna bi ñu jël sen kanam def fa illusion la parce que une histoire du c'est une histoire amul ñom euh, manam euh, ñi nga xamante ni pour ñoo tax aduna bi avancé ñom ñoo tax aduna bi li euh, importance yu doomu ah, def image def pour yow nga illusion Dal dafa am importance ba pare deug la pour ñom ñom dañ la ko bëgg gëmlo comme par exemple mu la bëggee jox exemple na la wax ni xolal Égypte Égypte ñëpp xam na ni ñëpp ngi koy woyé comme euh, la la la les noirs ou la terre qui a civilisé le monde entier wala la euh, le monde occidental jaajëf Kamal mon frère gëj naa la dégg dé Kamal donc euh, euh, le fait que l'Égypte est important au niveau euh, de l'histoire et au niveau de l'humanité, ils ont fait quoi Actuellement, ils sont en train de repeindre euh, les murs d'Égypte à leur image. Ils sont en train de repeindre l'Égypte à leur image limite c'est eux qui étaient en Égypte sauf que c'est des blancs qui avaient de la mélanine c'était des blancs qui avaient la peau noire un blanc qui avait peau noire ah, c'est tellement fou que man loolu awma ci sax xel ñaar wet waaw loolu moom sax diko wax ni sax daf may xawa a jaaxal euh, awma benn problème ak le fait que euh, l'Égypte xamna ko sax ba wa yow mënu ma sax nek diko wérante l'Égypte était noire nègre ça c'est clair et net mais aujourd'hui si tu regardes bu ngeen démé sen école yi bu ngeen démé sen livre yi bu ngeen démé sen documentaire yi ñuy def l'Égypte n'est pas noire de ça c'est moi qui le sais et vous peut-être mais ñom euh, les nasaraan les tubaab la plupart à part quelques-uns qui sont honnêtes Hein, et qui veulent avouer, vraiment, ils sont au minimum, hein, ils sont vraiment pas beaucoup. Le reste, les égyptologues comme tout babla ils sont persuadés que l'Égypte euh, était blanche. Hein. C'est sûr et certain. Parce qu'ils ont envie que tout ce qui est important pour l'humanité, de mettre leur visage dedans de mettre leur visage dedans. Tout ce qui est important dans l'humanité, ils doivent avoir leur visage dedans pour être en devant de l'humanité et avoir cette position d'autorité pour dire qu'en fait, qu'ils sont les maîtres, qu'ils sont les maîtres dans tout. Voilà, c'est important pour eux. L'on a complexe que indi. Comme par exemple, euh, euh, euh, par exemple, bon, je vais laisser ça. Alors, alors, alors, alors. Euh, j'avais dit euh, ils mettent leur visage sur tout ce qui a une signification subconscient subconscientielle et et pour faire semblant de faire croire qu'ils sont puissants en fait c'est ça en fait ils veulent faire croire à toute l'humanité qu'ils sont puissants et donc ils vont mettre leur visage sur tout ce qui est important aux yeux de l'humanité pour garder cette position d'autorité et de supériorité qui est justement une illusion qui n'existe pas parce qu'en fait à aucun moment ils ont marqué l'histoire euh, dans le sens de l'évolution de l'humanité Manam amul fenn fo xamanteni marqué nañu histoire ba histoire bi am évolution ba mu jëriñ doomu amul fenn fa nga xamanteni ñom ay mam wala ay marqué nañu histoire bi manam def nañu jéego yu am doyo euh, ci aduna ba aduna bi am dal nga xamanteni gisé nako na euh, aduna bi dara voilà ñi nga xamanteni ñoo def yu am importance yépp euh, su ma juumul te du càggan ni dama bëgg nekk euh, dama bëgg dama am mal mal honnête honnêteté intellectuelle wala historique ah man té si lima ma jàngat len bañal dara lepp la nga xamanteni def neen ko ci lu mak man bëgg na diko ko comme par exemple Nikola Tesla ah gis na ni c'est un grand type parmi eux voilà donc euh, Nicolas Tesla, c'est un grand homme parmi eux. Moi, ça, euh, il a peut-être fait des avancées au niveau de la science, au niveau de l'électricité et tout, euh, au niveau de la science et tout, euh, de l'électromagnétisme, etc., que, qui a servi à l'humanité. Ça, c'est clair, Nicolas Tesla. Mais j'aimerais toujours rajouter que par exemple, il a été cherché jusqu'en euh, dans les sciences ésotériques ou dans les sciences de l'Égypte antique, hein, pour pouvoir aussi euh, euh, créer ses théories parce que boy tous ses études Égypte donc du coup bah tous ses recherches il y a des schémas qu'il a fait des dessins qu'il a fait des articles qu'il a laissé qui fait croire qu'en fait que le gars il a dû fouiller en Égypte antique pour pouvoir avoir des conclusions parce que boulen Fateni antique avait déjà de l'électricité. Donc ça, c'est plus à prouver. Vous allez faire vos recherches, vous allez tomber dessus. Donc Nikola Tesla, oui, mais par contre, euh, il a dû aller chez nous pour pouvoir euh, euh, se, documenter. On va dire, ouais, mais le théorème de Pythagore. Ah oui, mais ils ont été tous en Égypte pour pouvoir apprendre le théorème de Pythagore. Existait bien avant, bien avant la Grèce, quoi. Je veux dire, bien avant Pythagore. Pythagore, justement, et tous ces, tous ces gens-là ont été en Égypte pour apprendre deng euh, donc euh, ngeen ni rek ah comme gars yi ñom wa am xam-xam set mais dafa ñun source dafa nous, ci ñun la affaire yi di pour nous, dem ci ñom ñun nous, ndeyu mbili ji nous, nous, euh, euh naka sax sama ne xawma tuba bi nit ku en tout cas ñun dal ñoo ndeyu mbili ji dal si ñun lay ballee pour mëna dem ci ñeneen ñi té ci ñun la ballee fës avant muy dem ci ñeneen ñi donc euh, euh, voilà mais loolu la rek Yakuza job donc ils ont tous ils vivent le monde actuellement et basé sur la nga xamanteni du dëgg tout est falsifié falsifié bu ngeen xolé amna ku ñuy fessel moy sen euh, wajoju ñuy wax euh euh ñuy wax euh, Einstein seen waaju ñuy wax Einstein mais Einstein man dafa am lu ma koy nous me reproché le fait que ni Einstein vous jabaram euh, Einstein nous dou dou que nous ko ah, Einstein attends retrouver document avant père hein parce que Einstein jabaram bi Mileva Einstein ben physicien moi Einstein lumu c'est que toutes ses recherches étaient basées euh, sur euh, les recherches en fait de sa femme. Donc c'est, il, a, il, il a extrapolé justement les recherches de sa femme et il a mis son nom là-dessus quoi donc euh, euh, Einstein bi guy du c'est l'homme le plus intelligent du monde mais en fait le gars il a volé les études de sa femme qui s'appelle Mileva Mileva Einstein Mon moo doon ki nga xamante ni moo partagé ak mon ay recherche Einstein doon jël recherche yi a ji doon def affaire yooyu daal ci def turam fësal quoi jabar ji kenn ko et que il a été découvert plus tard que jabar en fait c'était elle moo gënoon xarañ ci mbir mi quoi donc ngeen ni euh, Einstein sax bi gars yi di mom sax tubaab la certes mais voilà des na ci ñom quoi donc euh, en gros man pour man suprématie blanche moy lepp la nga xamanteni euh dugal nga fa gem moy li ngay top man pour man li ngay top pour meuna nek yow bu fekkee ne par exemple pour joxe dernier exemple bi pour euh, bu fekkee ne par exemple amna ben tubaab am na benn par exemple benn sama benn frère bu fi nekk benn sénégalais euh, benn par exemple naa jël sama oustaz sama imam euh, Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar Diagne daal di jékki ne eh man de am naa xam-xamu garab gi ak garab gi ak garab gi bu ñu ko jëlee mun naa leen fajal sida wala mun naa leen fajal hépatite wala mun naa leen fajal lii yéen yëp ngeen commencé wax ni dafa dof amna fi amna ay africains yu bëri ñëw taxaw ci plateau télé yi wala taxaw ci taxaw ci euh, euh, écran yi radio yi wax ni ñom mun nañu fajj bi jangoro ak bi jangoro ak avec des études sérieuses avec des études sérieuses euh, euh am amna ci ñu bëri africains yi daal di leen da leen wax carrément ni da ñii dañoo dof waye yeen ñepp xam ngeen ni ah yéen ñepp xam ngeen ni euh le plus grand dealer de drogue qui jaay drogue c'est la pharmacie et les médecins parce que bañ nañ ko ba États-Unis sax pharmacie boko ko lan lañ koy wowe drug store fi ñuy jaayee drogue et ñom ñoo jax jaay drogue sax dealer bi parce que li nekk seen produit yépp yi ñuy defaree seen médicaments yi sax ay produits la yo xamante on les appelle de la drogue ah moo tax anglais bi di wax drug store ah du wax pharmacie comme yéen drug store lay wax té drug store ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire c'est une boutique de drogue ok donc euh euh ñu ci bari ci yéen di leen teggi waa teg ko fële africain boobu wala Cheikh omar Diagne boobu créé médicament bi nga xamante ni sa base de plante buy faj ci daa wala wax ko ni dof la ba pare dem préféré dugg fi nga xamante ni moom mooy médecine

bokay def rek manam lepp lo top rek te te sa bop wala lo sa ay gëm-gëmu mam ak say ay gëm-gëmu semblable nga top gëm-gëmu euh, benen c'est-à-dire que lepp lu bi wax dafa am importance rek ngeen gëm ni am importance sen bop amul importance lolou moy dolel li nga xamanteni mom moy suprématie blanche tubaab bi dafa dem ba fësal bopam fépp wax ni mom mo gën fépp te lolou teggou ko ci dara lu ay fen ay mensonge yo nga xamanteni ni euh, A plus B scientifique yep ñu ngi koy teggi ben par ben ku def gëstu yu ndaw rek di nga gis ni en fait amul dara la nga xamanteni ni tubaab teg fi muy deug lepp rek ci ay fen la à chaque fois ci ay katch la ci ay katch la même science bi ñuy fësal sax bo demee ba xol di nga gis ci bi ne lu ci bëri ci science yi ni ay katch la ay fen la la nga xamanteni yanuul ma donc ngeen gis ni euh, suprématie blanche yé no ko tax mu dund yé koy tax mu am doole nitu ñuuli à dire qu'en fait je vais dire en français la suprématie blanche n'existe qu'à travers vous les noirs elle n'existe qu'à travers vous parce qu'en fait c'est vous qui la nourrissez c'est vous qui la nourrissez parce que c'est vous qui pensez que tout ce qui est bien vient de l'homme blanc et tout ce qui est important forcément blanche. Comme Nico Anta Diop la vérité sonne blanche. C'est ça que beaucoup de Noirs comprennent et, et, et croient. Et ce qui fait qu'en fait, la suprématie blanche continue à exister parce que l'on ngeen comme nous ma ko l'exemple exemple médecin bi ak nga dit am xam-xam nit la plante fajal la sa nga jël dem jël euh, ay médicaments wu parce que médecin bi euh, tubaab moko ko fësal tubaab ko jox diplôme mu jox la ay médicaments yo xamanteni boko jëlé xam nga ni di nga am effet secondaire mën nga ci dé voilà donc euh, ça ça prouve vraiment qu'on a un problème on a un souci de de voir les choses différemment c'est-à-dire que d'arriver à discerner les choses mën ngène euh, def li nga xamanteni mom moy le discernement di jël li nga xamante ni euh, moom euh, euh xalaat ba nga xamanteni ci bi lay ci bi la ko ko ci aduna bi lepp lo am importance ci aduna bi mu bopam kanamam def fa def fa ni am autorité bi ba ñu cette cette cette cette cette comment s'appelle cette cette manie de te paterner ou de paterner l'homme noir où qu'il soit yaa ngi dégg ñëw sax am sañ-sañ sa dëkk ñëw di doxee na nga xamante ni euh, bu ñu leen neex waxee ñu leen neex defee ñu leen bàyyee ci ñu leen neex ba nit ku ñuul ki dafa dem ba dafa am li nga xamante ni moom mooy benn euh, ragal lay am benn peur lay am ci biir xolom ba ñamewul euh, wax dara tubaab bi wala laal tubaab bi wala daal di voilà am na fa nga xamante ni tubaab bi mun na jël nit ku ñuul boom ko nii du ko wàññi dara ah mais nit ku ñuul bu bu bu gisee tubaab bu ñu boom ay nit ñuul boom ko euh, am na sax nit ku ñuul yu jug di jooy di di di wax ni non non non waroo def lii kërëb kërëb nangam nangam maanaam sax euh, nit ku ñuul bu ñu boom du ko metti dina ko du ko sax metti nu mu ko war a méttee waaye tubaab bu ñu boom moo koy gën a metti dégg nga loolu suprématie blanche dañu dem ba liggéey ko suñu bopp bi xanaa ma dugal euh, sama oustaz Pa Ousmane Dramé ah moom mu gën a xam naa Ousmane damaa bëggoon rek euh, fësal fësal loolu Père Ousmane j'espère que tu vas. waaw oh, salaamaaleykum maa ngi a ziar maa ngi lay ziar ak salaam gis nga am naa trop. waaw damaa bëggoon développer rek xam naa xaw naa yàgg tuuti mais nga baal ma nga jégal ma damaa bëggoon développer rek. xam nga sur le domaine scientifique. da nga expliquer mu leer nañ mu leer nañ ci ñëpp. Euh, nit ku ñuul ak nit ku weex. rivalité boobu dafa dafa yàgg dafa yàgg cette suprématie bi nga xam ne moo am nit ku weex nit ku weex hmm. Afrique la tàmbale Afrique la tàmbale ñoo jëkk a sonn ñoo jëkk a sonn ci affaire boobu avant ci américains yi dugg wala keneen di ci dugg dëgg la une idéologie idéologie boo xam ne une idéologie raciale et hmm. discriminatoire boo xam ne hmm. yenn waaye jóg teg ko ci gëm ko force ni ñi war koo gëm. Mhm. te bu ñu demee suñ boor suñ aada. ñu def suñu analise suivant suñ philosophie. Mhm. Euh, da nga fay fekk ñu ne doom mënta gën bay dëgg la. nga dellu si encore ci liñ gëm muy alxuraan ba ci bible bi dañ la fonkal say waajur say waajur. dëgg la. kon nit ku ñuul bu fekkente ne moo meññi tubaab. Mhm. lu seen suñ xel gàtt gàtt gàtt. nu war a nangu ne doom mënta gën bàyyi. dëgg la. mais soo defee analyse bi ñoom seen boor. Mhm. daanaka peut-être c'est plus scientifique muy wala peut-être une domination bi ñuy xalaat. Mm-hmm. da leen di bëgg jox dëgg wala nga ragal leen. dëgg la waaye boo delloo ci diine da nga naan ñii ay mm-hmm. boo delloo sa philosophie bi nga xam ne sa baay mu da eh, naan la mënoo gën sa baay dalay wóor ne ñii ànduñu ak seen sago. dëgg la toujours na dafa am lu ñu gëm te du dëgg du dëgg. Moi, je ne trouve pas de domination entre l'homme blanc et l'homme noir. Mhm. Domination amouti. Mhm. Yalla dogal na ñom ci ñun ci ñun lañ meññee ci ñun lañ mhm. ñu abandonné leen pendant 8000 ans. ñu nekk fa ñom di survive. di jël lu di boole lu di lu di ba bind seen culture artificielle boo xam ne ca loolu rek lañ gëm. Mhm. moo tax bi ñu lijjantee ba ñëwaat ci nun mhm. gis ñu ne sama maama ngi dañoo tiit. dëgg la leen tiital mooy non seulement nit ku ñuul ki waaye alal ji nga xam ne dañoo wër. Mhm. alal ji nga xam ne moo wër képp mooy la leen ñor. mooy les ressources que nous avons. la force que nous avons. tout à fait capacité yi am. ñoom xoolatuñu jëmm ji xoolatuñu jëmm ji mais. ana luñ mën a jëlee mhm. ci kii ana lu mën a jëlee ci kii. Mhm. ñoom bëggatuñ parce que bokkatu leen da xool der bu ñuul bi la ko fa jëlee la ko fa jëlee am na lu mu ci xel mi. dëgg der bu ñuul bi. la ko lakk la mélanine la ko lakk bam seey mélanine bi sey mhm. am na loo xam ne du pardonné xel mi. Quand parfois des acte Actes qui sont ne. yow doo ko mhm. comprendre ci mais toujours pour nous. Nous Un ci L'influence est Je inventé l'humanité mhm. nit ku la culture et la philosophie nit ku ñuul moo inventé les mathématiques la religion la religion a été inventée par des africains mhm. le langage le langage africain yi jëkk a wax ci àdduna mhm. la parole la parole ñoo ko inventé mhm. kon jërul dem ci ay kudd ak i paaka ak ont fourchette ñoom ay survive lan yooyu lañ gëm nekk ci di ko commercialiser defe nun xamunu dara waaye yàlla nattu leen encore nattu leen bala ñoo defar mhm. ab kuddu daanu ñëw Afrique jox leen matériel bi nga xam ne moo koy defar mhm. bala ñoo tëgg ab oto bu ci Afrique jàpput du dem mhm. moo tax ñu war a génn ci suñ xel yi une domination entre l'homme blanc et l'homme noir jamais eu domination xam nga lu fa am waaw boo juree doom da ko nàmpal yaa ngi dégg la ma lay wax. bu baax sax boo juree doom da nga ko nàmpal da ko jox mu lekk. lépp nag mhm. tubaab bi dafa heure dafa heure bi mu gisaatee maamam. ndeysaan tey ma nàmpaat ba regg te ma nàmpaat ba regg. Mhm. ciment bi muy tibbëg phosphate bek jamaa beeg or beeg baga yi muy gàddi daw yëpp. Mhm. maanaam surveillant la boo xam defe ne gis na lépp. Mm-hmm. donc comme boo jur doom nàmpal ko dafa mel ne. dafa mel ne nga xëy liggéeyee yow. Mm-hmm. bàyyi say doom ci kër gi. ñu mm-hmm. tasaare kër gi bu buñ la fayee sa salaire bala ngaa nooy jëndal xale yi lekk fay seeni école jënd leen i saak toppatoo seen day xanaa kon yow say say doom say seen jaam nga. yaa leen indi ci àdduna isul bi une caaj. Comment est-ce que responsabilité Nous, comme nous l'avons indi cette responsabilité nous revient. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Si nous ne pouvons pas faire ça, il sera responsable. De nous couper 24 sur 24, nous mhm. mhm. ne pouvons pas faire ça. Donc, côté Bobo, il a besoin d'ougu Mais côté Bingani, il a besoin de Dougou pour nous faire ça. Wow. Amérique Amérique Amérique souffrir trois fois maanaam qui mhm. suprématie mhm. esclavage presque 400 années Il y a des ci mais père père père Balmo, euh, question bu légui légui ni bu question dama koy mais ko répondre après la nga euh, euh, Yakuza Diop on est tombé sur quelle dynastie Dans euh, la tontu après Yakuza ma bàyyi père àggal comme ça père jeexal qui euh, wala après ma tontu la donc on est tombé sur quelle dynastie etc. je le note. ok Dans la tontu après l'entreprise l'entreprise des white suprémacistes. On mhm. waxna la ñoko ko sonu a ñun. l'esclavage. Mhm. la colonisation le néocolonialisme l'impérialisme les fausses indépendances la mondialisation. Mhm. C'est mm-hmm. ñun nous nous dund té ba nag ñu koy dund mais so, so, soo ñëwee ci la diaspora par exemple aux États-Unis nous, mm-hmm. mm-hmm. dañu souffrir esclavage plus de 400 ans. années ban démé ba naan esclavage mi ngi ba ci après la première guerre mondiale ñu duggal la ségrégation Mm-hmm. la ségrégation boobu métti ci black américain yi bis bu ne mm-hmm. li ciy dee kenn xamul nu mu toll amee black black amul droit dem city hall registre boppam mais yow mi yow mi moom mm-hmm. yow mi ko moom dem impôt et domaine registre ko fa comme ko am ngay jàmm waaw waaw waaw kon donc donc c'était c'était une affaire d'état bi état bi réalisé réalisé nag bay citoyen yi jog ci lañ mhm. samp nak ségrégation boo xam ne méttoon na trop mhm. ci blague du ci dugg restaurant bala do ci dem métro bi dafa fo mhm. yem restaurant bo ségrégation manam c'est affaire bobu danaka après la première guerre mondiale la commencé waaw waaw ségrégation raciale waaw ñu tàmbalee rey blague yi ñu sonu trop waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ban demee ba xam loolu nag passé na après la dernière guerre mondiale dernière guerre mondiale nga 39 45 les militaires américains. ont mm. tëdd ak tout à fait daawuñu de Toubabi. yi. waaw mais bi guerre bi jeexee nag ba ñibbisi. Mm-hmm. ñu tàmbali di am lu ñuy bañ donc mm-hmm. je veux dire que en 1950. une mm-hmm. forcé nag intégration. intégration boobu nag a l'intégration. coow lu métti li. intégration fait. mooy li nga xam ne moo indiwoon coow lu méttee méttee ci réew mi nga xam ne li ci dee rek. Mm-hmm. kenn xamul nu mu toll. sooy rappelé. Mm-hmm. Malcolm X. Mm-hmm. ci la ñàkkee bakkanam. waaw dëgg la Dr King. ci la ñàkkee bakkanam. tout à fait El Hadj Mouhamed. ñoo ñëpp ay activiste lañu yoo xam ne dañoo taxaw pour jëlee fi sa jëlee fi affaire boobu. nga dellusiwaat ci. permeyaat ma rek nga dellusi ah. mayaat ma mayaat mayaat ma tuuti rek. waaw allez allez am lu ma leeral fii tuuti rek. afam dafa am ñuy ruube fii dafa am ñuy ruube fii te bëgguma fi ñu fi ruube Maysa Faye Adam et Ève n'ont jamais existé kooku sax xalaatu bopp la am na ñoo xamante ni euh, dañoo gëm fii dañoo am seen gëm-gëm man nekkuma fi kémit nekkuma koo xamante ni je suis là pour euh, euh, séparer ñi gëm ak ñi gëmul sama yoon nekk ci gëm-gëmu doomu aadama am na ci ñoo xamante dañ fi nekk gëm ni yàlla ci aadama ak awa Euh, doomu aadama am na ñoo xamante nag gëmuñu ko ku mel ni yow euh, am nga ci droit donc euh, soxna yi rek pour pour rek soxna bi laajtee je veux de l'aide noir ou blanc qui sont les premiers Adam et Ève loolu tontu boobu du tontoom le tontu le plus sage et le plus euh, comment s'appelle adéquat mooy nga nga nga nga nga xaw ko jaarale ci ñaari fan yëm ne ko am na ñu gëm loolu am na ñu gëmul loolu waaye wax ko na ko ne n'ont jamais existé nul n'a la science infuse et la vérité absolue donc euh, dañu ni sóolaale rek yi nga xamante ni dañu am diine am ñoo xamante ni nag euh, aussi euh, amuñu diine ngeen déggoonte rek rafet ndaxte tontu bii moom yaakaar na yaakaaruma ni rafet na ci sa yaay faal bi nga xamante ni day sàkku xam-xam nga baal ma rek père loolu laa bëggoon leeral vite fait rek te xam nga rek. waaw il faut mu leer fii parce que def am ñoo xamante ni comme que dañuy wax conscience noire rek dañuy teg ci ay ñoo xamante ni mooy kémit yooyu noonu ah ñoo xamante dañuy jéem a weddi diine ak affaire demee noonu duñ man du loolu mooy sama démarche. donc dama bëggoon rek mu leer comme ça au moins euh, parce que man awma label man je suis anti label voilà bu ma kenn ñëw labellisé dugal ma fii amul kenn ku may jiital bokkuma ci benn groupe bokkuma fenn bu ma kenn jël benn étiquette tafal ma ko ne ma ma jëy lii la wala ma jëy laa man li ma xam mooy lima doon mooy yàlla euh, laa àndal te yàlla laay topp jeex na li si des moom euh, jaamu yàlla laa ba bu weesoo lool nag moom suwaay nañu xool attention bu baax ci waxin bi maa ngi jégalu père aywa bisimilah. gis nga en 1950. Mhm. ba 1960, neuf cent mhm. ci ségrégation bi ci la mhm. civil right mouvement ni commencé yaa ngi dégg civil right mouvement waaw boobu lañ tàmbalee commencé wax naa la sànq ne docteur King daanaka ci la ñàkk bakkanam Malcolm ci la ñàkk bakkanam Rosa Parks ñoom ñu ngi gis ñëpp ay victimes la ñu woon Henri fontaine da ci daan woy pour bopp nit ñi Bob Marley ah tudd na ci activisme woy ci pour transformer mm. message bi manam kenn ku ne wax na ci moom ay organisation yu graw nag yu mel Black paint mouvement lu mel mm-hmm. Nation of Islam lu mel National Urban League ak lu mel ne mm-hmm. NAACPA yooyu ay groupe lañu ñu woon yoo xam mm-hmm. ne dañoo jóg leen la non violence lañ ñu wax mm. kon waxuñu ko affaire racisme waxuñu waxi xex manam groupe bi biñ joggé dañ ne mhm. la non violence. deug la malcom malcom X rek moo ne woon ku ma door cour que danaa door cour bo waxee ma door a tontu. Mhm. waaye docteur ki mo ay have a dream la doon wax danaa ma sa toog ak tubaab añ. mais malcom dane lu ma bëgg bëgg jàmm. boo dir na mhm. aw yet danaa la dir aw yet ba nga ubbi say nopp bu ñu toogee. ah waaw te loolu lay fulla loolu mooy fula. loolu loolu kon kon affaire bi noir américain yi defuñu ko mhm. woon defuñu ko woon parce que dañoo bañ tubaab dëgg la ñun mënuñoo raciste mhm. parce que racisme racisme kat kattan la ak mhm. ay moyen kattan économique déjà mooy loolu la rek kattan la ak i moyen ah. même boo amee doole boo amee doole bëgg maa lekk man nga maa ba ngay dee c'est clair kattan la kattan la ak i moyen dëgg la te temps boobu blague yàlla dogal na amuñu ko amuñu benn ba léegi sax amuñu ko ba eur ba heure bi ba bii kon ñun mënuñ dun ay raciste amoo mhm. kattan goo raciste amoo man-man goo raciste tubaab it ba koy def njariñal boppam ak bild boppam moo tax mu yaakaar ne moo la gën te bu fekkee ay julit pardon pardon pardon ma tontuwaat ma ngi jégalu. ma ngi jégalu vraiment mais. Maïssa Maïssa mon frère fay Maïssa Maïssa je te je te critique pas c'était pas une critique contre toi mon frère Maïssa euh, ne le prends pas mal ne te vexe pas je m'en excuse si j'ai parlé d'une certaine manière mais dama bëgg rek euh, mu leer comme ça au moins qu'on ait plus de sagesse Maïssa c'est pas contre toi ma ngi jégalu nak euh, xam naa ni gëmuma la gënuma la gëm yalla waxuma ni gëmo yalla dama ne rek y a une manière de répondre qui est plus euh, sage que cette manière directe de dire Adam et Ève n'existent pas, par exemple, et tout. C'est pas une manière adéquate de répondre. quoi. Mais ne te vexe pas, mon frère. C'était pas euh, un pic contre toi. OK Tu peux rester tant que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu. Fait que tu veux partir aussi. Ah, bah, je te retiens pas. Mais c'était pas destiné contre toi. Vas-y, continue père. civil civil right movement waaw benn benn lii lii la ñu xeex lañ bëggoon bëgguñu leneen. une intégration mhm. rapide. une intégration mhm. rapide. sans mhm. condition. ni application. ci réew mi lañ dëkk. dañ fee bokk. bu nu leen indi kii di indi amul condition déedéet. dañu bokk par force. moo tax plaques yi ñu bëri bañ a dox tubaab yi bay surtout dans sawut sawut bi. sawut bi da ngay ci benn baar. nan ba doyal tubab ne sama jam, sama esclave mu upp doole sa esclave waaw nga dem jeli sa bos mu eli bosam ñu géewale ñu rayante ba dee rayante ba dee ndeysaan dëgg la loolu lépp maanaam fii fii ni fi demee woon dafa ëpp le fédéral mhm. gouvernement même bi nga xamee ne ñi ngi defar raay mhm. bi entre New York ba Californie ci mhm. saaw bi ci saaw bi la jël ay jaam indi ñun gàddu weñ di taqale di taqale ba Californie. dëgg la. yaa dégg kon métit métit woowu nga xam ne dund nañ ko dund nañ ko ak toroxal googu ñun toroxal. Mhm. taxul sax ñu supérieur ñu déedéet. doole la woon rek ak man-man. te te mhm. xalaatuñu. Mhm. mais fekk na ay jullit lañ wala ñu même ay chrétien daanaka xalaat bi benn la ki la gën a ragal mm-hmm. yàlla gën laa gën gën laa nangu ndooli suñu borom moo la gën mm-hmm. moo la gën mën naa doon tubaab mm-hmm. mën naa doon naar mën naa doon africain mën naa doon espagnol kon boo ñëwee côté dërin bi loolu c'est classé tout à fait mais dama ne li xooli der tubaab bi ba weex am na lu yàq ci yur gi dëgg la j'affirme parce que yuur gi maanaam ci science ci scientifique laa la wax der waaw waaw waaw mun naa ay firnde sax li xool li xool li der um set mhm. moo tax wane na ko nous avons rien de commun ak ñoom. hum rien rien. moo tax am na am na ci wàllu wowu am na ci wàllu woowu lu ñuy wax euh, glande pinéale. waaw maanaam euh, ñenn yi di ko tuddee xaw ma bëtu digg la ñuy wax xaw ma lan nag lan ak lan la glande pinéale lu am la lu nekk ci. le cerveau humain Comme d'après ce ñuy constaté au moins 92% des douze pour sont ci ñoom une glande pinéale qui euh, dafa calci dafa atrophié maanaam dafa mel euh, lu C'est ah si cerveau bi noonu daal loolu daal la science bi sant te n'est jamais violent devant un blanc mhm. nous ne sommes pas violents nous ne sommes pas des racistes même lii nuy wax bu leen defee dañoo racisme yow raciste ñu de dafa am loo xam ne suñu doom yi war nañ koo xam ñoo leen koo xamal. Mm-hmm. est-ce que vous doomu aadama. tout à fait doomu aadama pour nga soppi ko pour nga soppi ko il faut solo ko dem ci yuur gi. Mm-hmm. yuur gi il faut nga wëlbati ko pour boo ko wane boo ko boo ko nee deux mu ne quatre. Mm-hmm. falsifier son histoire. falsifier ko moom ci boppam. Mm-hmm. teral ko loo xam ne du wàllam mm-hmm. gëm loo ko ne amoo ay valeur dëgg la daal doon gono mu doon golo léegi ci yow dëgg la ñaare sun maam yi dañ naan tubaab mun te defar nit waaye mën naa soppi doomu aadama golo ah waaw ci lu leer mën naa soppi doomu golo en tout cas daal affaire suprémacisme yooyu amoon metti woon na mm-hmm. histoire wane na ko les nations unies mi ngi ciy pat nangu wax waaye affaire Israël réglé na ko bu yàgg. Hmm. affaire Israël réglé na ko réglé ko bu yàgg. dëgg te loolu ngay wax naan c' bien possible. l' Afrique mhm. sans les Africains c' est possible. ñoom mën nañ ko de. y' a ah. l' les Indiens. gis nga ko laa bëggoon wax Australie Australie ah. ah waaw natif australien. ah waaw. yaa Dominican ah, République. sans les haïtiens. Ah, South Africa. sans les sans les africains. c'est vrai boo demee Rhodésie ah, xam ne suprématie mhm. lañ ko féetale ñoom drapeau Rhodésie bi. mooy mhm. suprématie. ah waaw tubaab tubaab ko sédd tubaab bee leen ko sédd ndax ndax anglais yi bu njëkk dañ naan dóor nangu suprématie yi. kon kon kon. kon dafa mel ni nit ku ñuul mun naa jékki-jékki nax saay fii ci àdduna bi loolu mun a nekk. moo dama ne xoola pot dama ne ki la hmm. jàngal ki la jàngal nax la. Hmm. diplôme yi ñu ne diplôme yi ñoo ni bëgg a rey. dëgg yi ñoo ni bëgg sab noonu bu la jàngalee sax ma ngir yàlla bu dem fenn tarifa. dëgg la. ki la bëgg a yilif ki la bëgg a possédé ki tenk ne moo la supérieur. Hmm, nga ne ko monsieur torox nga yow. dëgg moo tax une parti des njóobeen am na ñoo ñoo lànkoon ne tubaab du jàngal seen doom dëgg la mais yàlla dogal na ñooñu bi leen sa lancé ci commerce bi ay milliardaire lañ mais kenn mënu ci bind sa tur ci arab wala ci ci wolof ci mm. tubaab mm-hmm. parce que bëgguñu woon gan ñëw di leen coloniser bëgguñu ko woon moo tax ñu bari mm-hmm. nangu noonu bi seen doom ci daara yi te nangu na jël seen doom it di ko jox tubaab bi mm-hmm. daanu waar mais bi ngeen jàngee ba ñëw dajeeg ñoom ci terrain bi. ña nga mhm. Sandaga ñi nga Sandaga ñi nga fépp ay milliardaire lañ yoo xam ne mosuñoo jàng ak lii. Mhm. dëgg la donc mbir mi nekkul ci ki problème problème ay gëm gëm la. ak doxal dëgg. ak jëf loo xam ne doo lor sa morom. dëgg en tout cas li wér bu dul woon yow mhm. mii tubaab du am. moom loola nangu loolu nangu nañ ko. loolu nangu nañ ko. problème bi problème bi am nag mooy bi am moo dugg ci suñu biir nu nangu ba tey mu diviser ñu daggate ñu seet la ko neex mu def ko même ni ñuy sëyee ñi mhm. ñuy sëyee ko bindal ci këyit code de la famille du Sénégal gis nga ko lépp lépp tubaabee nu ko bindal amu ci leen lu dëppoog sa aada pour pour pour pour dëgëral pour dëgëral loolu nga wax noonu rek xaaral ma jox ñi ni benn article pour confirmer loolu ngay wax noonu Euh, article vous euh, présentez un livre de euh, Serge Serge comme Serge Gruzinski mm. G R U Z I N S K I Serge Gruzinski mon et livre bi l'Europe a construit sa domination en écrivant l'histoire des autres voilà l'Europe a ta domination en écrivant l'histoire des autres y a un article vous ngeen ko fait peut-être sur Google dina am tout résumé mais ñi am moyen le livre bi ngeen dem ci bibliothèque bi ngeen xool euh, livre boobu noonu quoi donc euh, Serge Gruzinski Mokobine, l'Europe a construit sa domination en écrivant l'histoire des autres euh, donc tu as tout hein expliquer euh, comment les Amérindiens comment les Péruviens comment les les Latinos les les tout ça là ils ont perdu leur histoire

musuñu ko jox Cheikh Anta mm-hmm. Mm-hmm. tellement que tubaab bi ci moo am xam-xam mm-hmm. tubaab bi moo am xam-xam boo xam ne xam-xamu seytaane sax na moom laa lay wax ne moom la ndax mënoo ñëw ah. mënoo ñëw fekk si ay nit fekk si ay nit ne leen seen toogaay yi bàyyi leen ko toogee leen nii li ngeen di lekk bàyyi leen ko lekk leen lii fi ngeen jëm bu leen fa jëmati jëm leen fii dëgg la ce même gars ce même moo dikk daaj suñu bopp yi ba intellectuel mu naan démocratie démocratie sax xamuñu baat boo xamuñu ko sax. billaay wallaay. tubaab bi bu fekk tubaab bi fekk na démocrate la démocrate. du ñëw fekk la kajoor toog doon am am pays. Hmm. kajoor dagg boppam ay province kajoor dagg. ba hmm. dagg njàmbur comme Suisse. Hmm, maanaam. loti sa dëkkam teg ko ci paramètres yoo xam ne boo ki da nga xam kii fii c'est un pays. mu dikk ne leen c'est la démocratie hein lépp day dak ngeen bayilu lu an la dama lay ray sax yow dem taal dëkk jàmbur rey ñëpp daal di bindu koy ne ah, def len li def len li ko c'est un dictat ko ah, ko ko kooku la jàngal dé démocratie gi di wax dala de tuba tuba bobu tay ñew ci yow moo tax intellectuel laïcité laïcité dama len di yërëm tuba bu gëmoon laïcité bu gëmoon laïcité du fekk seigne tuba bi julli mu ne doo fi jullee billahi bu tuba bi gëmoon laïcité gëmoon laïcité Alaaji Malick si. Ah, waaw du dëkk Tiwaawoon. rawal gaa gaa lay ne. xool rawal waay ko mën lay cité bu ko mën lay bis boo xëy dem siyaare Cheikh Omar Fouti fan ko denc. tubaab bi ko mën lay cité. bopp amul Lamine <laughs> Dramé kenn ko dagg ndax li saama tax mu doon xeex. akay dëgg kooku ñëwul nag privé saw askan. ñii mu rey leen ngir diine. naan laïcité <laughs> ngi nii le plan de laïcité mi ngi nii. sun jànkat di ko tudd fu mu damay ruus bu ma ko déggee. billaay wallaay je te promets. dëgg la de. dama ne. Mhm. encore y' a pas de domination. et on mhm. peut bien se rattraper. billahi xam nga ñu liggéeyul. moy sun ñu mhm. liggéeyul. mooy suñ ulamaay ñu liggéeyul. ndeysaan. quatre-vingt-quinze pour cent d'une population musulmane 95%. Mhm. Té ñom ulama yoyu saggan nañ saggan nañ ba tuba bi keuf suñu xel noonu wallaahi Té jusqu'à présent amuñu solution mais weesu na keuf sax légui dafa melni même même état même l'état du gouvernement le corps du gouvernement doo leen ci mhm. gis mhm. ay arabisant lañ leen di wooy ak lu kenn xamul mais weesu na këf sax parce que dafa mel ni daanaka euh, munoo leen génnee ci xalaatu nasaraan boobu maanaam dafa dem ba xalaatu nasaraan boobu dafa bokk ci ñoom maanaam comme ni ma koy waxee rek nasaraan bi daa jël seen bët jox leen ñoom ñoo yoru bëti nasaraan si bëti nasaraan si la ñuy xoolee bëtu nasaraan la ñuy xoolee àdduna léegi xooleetuñu seen i bopp bët mais bëtu nasaraan si la ñuy xoolee aduna mais ni nasaraan si di gisee lañ mais da xool da xool bagage yi am bagage yi am lu toll ne mhm. alxuraan al alxuraan nu am ko mhm. Mhm. Sëriñ Tuubaa bindal nu sept tonnes teg billaay alaaji Malick si bindi ay téere teg ñeneen ñëpp mhm. bind te mhm. le message mënuñu ko transmettre mu ñu ci population bi ba touba bi touba tubaab bi pare lay jóg pare lay indi ay ay livreum am simple loola sànni daaj lu neex sun bop yi deug la motax heure bi si vous parlez du développement pour développer le Sénégal avant nous def dara avant ñu tambali dara. Mm-hmm. Mm-hmm. les intellectuels war taxaw balu ak askan wi. là. ces gens là appelés intellectuels. politiciens mm-hmm. politiciens. avant un changement am tout tout tout ba dëgg parce que nous sank nous sommes, ñoo jàngoon ba dikk ñu di leen déglu ñu di déglu. tubaab bi jël leen seen yuuri tubaab bi jël yuuri du për ci ko mm-hmm. Sénégal fii ne Sénégal bu soxla ay bale noo cadre duñu xalaat usine bale pour di ko defar mën cee jaay sénégalais yi wuñ ko encore jaay ko africain yi xalaatuñ ko de dañuy mm-hmm. dem France ci kan jàngandool mu jaay leen ay bale wallaay la solution de l'intellectuel sénégalais c'est l'importation. De La solution, mooy importation. dëgg la bañ xam nga infériorité yu ñàkk xorom yooyu moom laa bëgg di souligner. Mm-hmm. dans mon jox weakness moo tax ñu. moo tax ñu faible. dëgg la waaw. un mooy fësal moom mooy fësal li nga xamante ni moom suprématie bi moom mooy fësal suprématie bi. même un projet un projet politique. Il y a les mm-hmm. universités qui sont au Sénégal. mooy daaray kàngam bi nga xam ne chaque mm-hmm. question sa réponse est à l'université mm-hmm. da ngay gis les cadre du parti jël avion dem France mm-hmm. seen benn cabinet boo xam ne xamul fu ngaay maxe ne xamul fu cil maxe ne xamul kañ lay taw xamul noor xamul fu jaajoo xamul fu Louga ne xamu ko mu dessine la ay dessin nga yanu dessin yi ñëw bëgg nu ci yor. jëllaay xamal nga man na wa Columbia wa Columbia université xam hmm. na ma naw leen ñoom bëgg ñoo dégg nga naan Cheikh Anta yo min fi indi di la fay yo lañu dañoo bëgg yo lañu nga nga nga li nga man nga wax ñu li nga man billahi merci beaucoup way <laughs> mo e Columbia bo ñu Columbia université <laughs> mu ya un e sénégalais kër bi ma démé ci graduation bi ah dama kontaan mu ne ma fi kenn fi duggal livre man may livre bi voilà mais loolu mooy borom xam-xam loolu mooy jàngale <laughs> man se ça loolu la waaye ga ga dañu bëgg per per baal ma ah. dama bëgg ma hmm. nit kuy jëfandikoo li Cheikh Anta jàngale ñëw moom mu nekk carrément prototype li Cheikh Anta di jàngale moom mu ñëw wane ñu li ko Cheikh Anta jàngale lan la ko jëriñ ah ak lan la ci mën a yokk comme xam-xam pour mën a jëriñ askan wi waaye nit ku ñëw toog di la ubbi livre Cheikh Anta Diop di la liirloo livre Cheikh Anta Diop te yow mii mun ngaa toog sa kër jël livre Cheikh Anta Diop di ko liir man su ma sañoon de ñu weesu niveau boobu niveau bi nga xamante ni moom laa bëgg ñu àgg mooy. Mm. ñu nekk li nga xamante ni moom la Cheikh Anta Diop jàngale ñu intégré ko pratiquer ko bu ñu demee taxaw ci askan bi ñu mën a nekk li nga xamante ni moom lay jàngale. voilà man c'est ça ça que je crois. Colo Colo dañ naan la. waaw diggante Gorée ak Dakar. Mhm. dañ faral benn pont. dëgg la. yow nga ne fër dem Canada ji nub livre indi. Mhm. danaa yow bu nu fonto sa ah, tànk sa tànk sa tànk xooj ci ndox mi sa tànk xooj ko ci mat ne istil mathématique yor génn ko génn mhm. ko mhm. waaye dem yàlla livre jàmbur andi mais yow liggéeyal la toonu kon waa liggéeyal toonu de c'est clair net c'est ce que je me tue à moo tax ces professeurs là bu ñuy dikk loxoy neen lañu yor loxoy neen lañu yor <laughs> billaay dañuy rus dama koy wax fii dama koy wax fii détail dama naan gars yi jël leen li may wax ngeen dem def seen recherche ngeen éprouver ko maanaam bu leen en comptant leen moo tax ma leen di wax souvent ñoom ñuy noté naan lépp lu fi wax rek jël leen seen carnet ngeen noté su ko defee ngeen dem gëstu comme ça booy gëstu mbir mi affaire bi boo koy liir di nga ko dugal intégré ko su bopp comme ça mu bokk ci yow su bokkee ci yow rek mun nga taxaw sax di wax te dootoo soxla ti kayit wala ngay soxla carnet wala ngay soxla livre booy wane ndaxte mbir mi day nekk ci yow loolu moom mooy xam-xam. waaw waaw gis nga évolution gis nga évolution évolution. c'est ça mm-hmm. ab coono la ab coono ak xam-xam. Mm-hmm. dangay ngay da ngay dem ba ñàkkatoo xëpp. Mm-hmm. sa xam-xam yëkkati la nga jóg. dëgg la. waaye nanguwoo sonn bëgg jël coono jàmbur. dëgg la waaye loolu day yomb indi sa xam-xam jàmbur. da nga créé confusion boo xam ne. yow ci sa bopp yow sa bopp mhm. doo mën a gérer dara parce que lépp da nga ko àbb moo nit ki lu muy def lu muy def da ko war a mokkal mhm. nit ki lu muy def da a mokkal mais mais ah. am na benn am na benn partie bu ma bëggoon ñu ñu ñu daanelee ko wala ñu ñu ñu laal ci mooy partie li nga xamante ni moom laa bind ci ci ci ci annonce bi mooy euh, le privilège waaye privilège maanaam boo nekkee tubaab rek ah daanaka àdduna bi daal yaa ko moom yaay borom daal maanaam fii daal tubaab maanaam par exemple mun na ñëw Sénégal euh, fa nga xamante ni nit ku ñuul dañ ko fay tere moom ñu bàyyi ko fa mu dugg fa te dëkku nit ku ñuul maanaam le privilège d'être blanc. ñoom dañu dem ba tabax seen àdduna bi ba mujj mujjee doon seen kër ñu am privilège ci lépp maanaam euh, nga baal ma rek vite fait euh, par exemple comme ni ma koy waxee rek dem ba gis ni problème mu jàmbur du seen problème ñoom tant que laalu leen personnellement. wala boo ma xam ma boo foree jamaa Afrique boo foree mm-hmm. jamaa Afrique mm-hmm. bala ñu ko jox dëgg rek kara bala ñu jox ay document Angleterre rek bourse mm-hmm. Angleterre yow jamaa bi Afrique lañu ko fore mais kay du naan taux bi lii la poids bi lii la anglais koy def ah yaa ngi dégg li ma bu baax sax da ngay xool fa da ngay xool da ngay xool tey France par exemple privilège privilège ci la ne bay de

Si vous voyez par exemple la Palestine sans les Palestiniens, mhm. la Palestine sans les Palestiniens, comme ça, mmh. sans les Noirs, l'Amérique sans les Noirs, yooyu ay terminologie tubaab yi ko incarné dugal ko xëy na du dëgg du dëgg ca yàlla du dëgg ca yàlla waaye dana metti dana metti ci ñu ko seqal. Mhm. yaa ngi dégg. privilège mhm. privilège privilège da ngay xool Nations Unies mhm. cinquante quatre comme cinquante sept drapeau africain ma ngay naaw tiim asamaan si presque deux mhm. tiers yi presque deux tiers yi ay drapeau africain lañ tout à fait mais amul genn kàddu genn kàddu gu africain yi daf ñu déglu la yaa ngi dégg loolu lépp privilège leen jël joxante ko boo ñëwee ba ne Nations Unies droit de veto

parce que blague yi mhm. seen bakkan lañ teg seen mhm. liberté billahi am na blague yi boo leen dépassé doo dem billahi man j'ai vécu ak docteur Khalil Mohamed sama xarita nekkoon naa ak moom moo gën a baax ci àdduna te xamul sax luy racisme luy racisme xamul ko il raciste mais boo ko dépassé doo dem ah ma ne sama idole de mo voilà un boo ko dépassé doo dem <laughs> billahi Eh, parce que lim la doy na lim la may doy na. jëli ay maamam indi ñu liggéey la pendant quatre cents années. mu doon xale xale bëgg a jàng. l'un des plus intelligents de la planète mooy Dugayen boobu. nga ne ko doo fi jànge doo fi jànge ségrégation doo fi jànge mi lu bëgg da ngeen mu leen di boot da war a muy ree billaay mais am na droit mer mer kay la def Malcolm X dañ ko interdit école mu sa jàng daanaka Mm-hmm. te ay maamam taxawal lépp mais da ngeen bëgg Malcom am da ngeen bu Malcom waxee ñu ne daa moo tax mu ne ku mu ne dir awet loolu docteur na xoola amu dirim de man du de dama cee bokk sama wàll laa soxla I don't have to dream hours <laughs> hours hours ne wan boo ma duuda yet danaa la yet doora wax ak yow waaw ah, waaw waaw waaw akay dëgg <laughs> <laughs> wax na dëgg de. yal na yàlla suturaal daal yal na yàlla suturaal te. waa jërëjëf góorgóorlu te ñi nga xam ne nag ñoo doom jàngi woon jàngi woon. Mm-hmm. Euh, nañ tuub. Mm-hmm. di def ñaaw na lool. billaay de par leur canal de par leur canal. l'homme mm-hmm. est arrivé à travestir une population boo des populations yoo xam ne. ay nit yàlla lañ. travestir askan yoo xam ne mhm. ñoom duñ mën a am kon ñi nga xam ne ñoo jàngi woon ci tubaab bi jàngi woon ci tubaab bi mhm. ay diplôme moom bu leen di ko waxati ah waaw plus la nekk Sénégal ci ay conteneur PhD la fa nekk ay conteneurs yi master te tey ndox mu ngeen naan amu leen ko PhD ah. yéen waroon waroon ah. nañu rus waroon nañu rus sax taxaw naan damay laaj réew mi billaay ulama aussi la même chose. billaay imam yàlla digle ajuma ñu dem ci juma ajuma ak bisu it ñuy xutba ñoom imaam yooyu ak di xoole di xoole ba tubaab bi ne casul xel yi moom. billaay. taal bi nga xam ne dañoo bokk ci système bi war a jàng. Mm-hmm. ay pot lañ ŋàpp ay pot lañ ŋàpp di yalwaan luñ lekk. c'est extraordinaire. ulama bi di ko diine teg bët te mënu ci dara. billaahi wallaahi boo gisee diine ñu ko tàmbali waaye far Sénégal. moo ñi mm-hmm. nga xam ne ñoo am diine ñu naan di ay ulama. Mm-hmm. danoo joxul benn résultat. benn zéro zéro. tout à fait. mën nañu ne ci jàkkaarloo. naan yàlla boo julli dana la dóor wi yàlla yet wi la yor boo boo faatee waxtu yàlla cravache gi la yor yàlla bu lay duma loolu képp lañ lay wax jëmale ginnaaw suba. la wóor leen ne dañoo soxla tuboo yi jun jullee waruñu ko jënd ci nasara nit mënoo koo bañ ba pare yaakaar ci moom loo jullee. billaay dama ne mënuñoo bañ nasaraan bi te buñ jullee moonu solal tuba yi mënul nekk de mënuñoo sip araamal nasaraan bi te kurus gi ngay weer de kurus gi ngay weer de moo la ko defaral jaay la ko xam nga cette dépendance là cette dépendance chronique boobu nekk ci askan wi. moo mais ñi ni ñi ni faral ñi ni dañuy faral di mélanger des fois boo waxee loolu am na si ñoo xamante ni dañu gisee fi ngay waxee man man je vois parfaitement ce que tu dis amul benn problème ak ñu bëri fii yaakaar naa ne gis nañ bu baax li ngay wax mais dafa am si ñoo xamante ni leen fa gisee ni. boo waxee noonu dafa mel ni dangay ngay sànni xeer ñi nga xamante ni moom. mooy déedéet sànniwuma xeer rek déedéet dëgg dëgg rek. xam naa rek xam naa bu baax. mais pour mu gën a leer rek. dafa li waa li waa ji xalaat li waa xalaat xalaat amuluma njëriñ. dëgg la. li may wax bu amee la ko ci jariñ na ko jël. dëgg la su ko ci dara jëriñu na ko sànni ci mbalit mi. dëgg la waaye liberté wóor mooy. Hmm. en matière de diine waroon nañoo dépasser fii. nous mhm. avons le nombre, nous avons un bon nombre. 95%. Mhm. Mhm. dama ne de la famille 95% de musulmans. code de la famille bi nga xam ne moom lañ moom la ni ni la constitution d'ailleurs. ni la constitution parce que Cheikh Antonio Diop wax gouverne ñu ne ko ah, nooy def mu ne du dara lu dul nga xool askan wi wéeru ci seeni i conscience historique philosophique culturel wéeru ci seen i bëgg-bëgg natteeg li nga man yow natteeg li nga man dem na uti relation yoo xam ne sa njariñ ngay jiital yow mm-hmm. nee na boo boolee mën a bind résumé boo xam ne boo fa awele réew mu dem muy mm-hmm. dëgg yaa ngi waaye ñun def baax sax defe nañ ne defe nañ ne boo toggee sax defu ci dib masi baaxul xam nga suprématie suprématie boobu ñoo ko def ci suñu bopp yi mais tubaab bi sax gëmu ko tubaab bi gëmu ko non loolu laa wax sànq ma ne suprématie bi mooy li nga xamante ni moom nga gëm topp ko yow en tant que nit maanaam li ngay def sa bopp ni yaakaar ni looloo dagan loolooy dëgg ba joxe exemple sax par rapport ak euh, tubaab bi euh, médecin bi nga xamante ni sénégalais la am na xam-xamu jël ci ay plante daal di defar li nga xamante ni moom mooy garab boo xamante ni mun naa faj euh, sida wala beneen jàngoro ñëw teg ko ci kanamu sénégalais yi mais sénégalais yi ñoo koy njëkk tam dof wala nekko li ngay kii du dëgg parce que ñoom seen gëm-gëm jàpp na ni foog nga am PhD wu médecin bi tubaab bi fësal loolu rek mooy mën a confirmer ni yow mi mën ngaa faj wala am nga doole faj parce que tubaab bi moo ko fësal tubaab bi moo jox loolu doole euh, ñu ci bëri nag kam ni ah man médecin boobu noonu di fajee planté am ay sénégalais ak borom xam-xam yu bëri ay africains yu ñëw télé yi wala ci rajo yi wax carrément ni mën nañoo faj jàngoro bi ak jàngoro bi waaye ñu bëri africains yu bëri dañ leen di ngat dam préféré dem jëli médicament wu ak médecine tubaab bi. dama ne xoola dama ne. nous avons rien de commun avec l'homme blanc. kon garab yi nii. garab yi wërta bokk garab yi wërta bokk. warut a bokk nit bu fekkente ne nit bu fekkee li ngeen lekk bokkul li ngeen di naan bokkul waaw li ngeen di seey bokkul waaw fi ngeen dëkk bokkul waaw maanaam température yi bokkul climat yi bokkul nga naa koy yéen ah. da pare sa dema ci reeni seen ngeñ yi nga xool la nga la lay fekk billaay mais boo ñëwee ne moom mu di la jox ay xob xobi xobi poftani tubaab nga di ko naan da ngay dee léegi <laughs> mala xool ki ki xool ki ki nga xam dafa feebare Saalum waaw nga xam ne sibiru sibiru moo ko jàppee Saalum. waaw ak ki sibiru ndar. waaw ay garab sax waruñu koo bokk. benn boo demee Saalum lekk gi bokkun ndar jën mhm. yu tooy xëpp la ñuy lekk ñeent dañuy dañuy togg ñalag. waaw boole tàngoor woo xam ne tàngooru métti la. ndar brise de mer bi day ñëw. Mhm. waaye sama bopp day metti rek kenn ku ne doon xob aspirine amoo xam-xam. Hmm, day waar de. waxuma laa nag tubaab ba nga xam ne mooy ne ca ginnaaw cilmaxa maa ngi ca ginnaaw Bordeaux mm. bëgg a bokk ak ay garab xool ko nekk Alaska Alaska mm, mm, doom yi muy naan doom yi muy naan moom lañ naan ca Kajoor bu si <laughs> xam nga xam nga xam nga père comme que yaa ngi doon cité docteur Khalid yo yow war xam euh, docteur Sebi dama waaw docteur Sebi mooy docteur xam naa docteur Sebi euh, docteur André Clark docteur Jeffrey docteur Jeffrey aussi <laughs> docteur Jeffrey moo fi amoon problème bi ak ak juif yi quoi. waaw waaw waaw maa ci problème ci problème Cheikh Anta ci problème Cheikh Ka Cheikh Anta Diop. ci civilisation bu barbarie bi booba booba maa ngi ci bi maa ngi woon ca code ba. ah di ko ah, supporté moom di ko supporté. waaw docteur Sébi moom mooy ki nga xamante ni moom moo doon wax ni jox ma jàngoro bu am bu mënti am ci àdduna ma fajee ko ak gàncax moom nee na gàncax mooy faj lépp. ndax nee na feebar rek. loolu la mu ne benn feebar moo am ci àdduna muy mucus maanaam ñandaxit nee na loolu rek mooy feebar mooy indi cancer moo gis indi jàngoro boo gis ci àdduna bi nee na looy gën a ñandaxit ci sa yaram euh, di gën am wér gu yaram quoi donc morom moroom wax ni aussi ne munoo jëlee nit yu ñuul yi Afrique ñoom indi leen Amérique ah ba pare ngeen yaakaar ci ñoom wér gu yaram te bokkuñu environnement maanaam seen environnement fii dafa hostile maanaam environnement bi ñu nekk bokkul ak fa seen maam yi dëkkoon. yéegi euh, euh, nit yu ñuul yi ñëw fii Amérique at France ak affaire yooyu bëgg fi yaakaar wér gu yaram nee na loolu mënul nekk voilà donc. Euh, xam nga xam nga xam nga sànq dañoo waxtaan ma ne la ki nga xam ne moo créé le langage. ki nga xam ne mhm. moo créé humanité. Mhm. kii nga xam ne moo créé wax wax ndax ñooñu ko wax ci àdduna mhm. ñooñu ko wax. kooku tey bu ne yàcc ba ba jenn waay jóge ca àll bi di ko jàngal. billaahi naa jóg ci boppam. waaw loolu moom doy na waar mathématique dëgg yàlla chemistry chimie chimie chemistry bu la ko day daw billaay xool da ngay xool cere cere cere fi ko ah, sa maam jëlee ah, ah. ba dugal ko simi mm-hmm. nam da ko war a tey am chaleur loolu doyul mu xam ne bu ko lekkee mu dem ci médecine encore ne kii bu ama laaloo ko ndax mu nooyi billaay <laughs> askay mu laaloo ko mu mu tay ko tayaat ko da ko tey deux fois toj eh, eh, eh, ko aram ko def ko doom bu saalum saalum yi dañ ko def doom bu sew jàmbur jàmbur def ko doom bu dijj la xam-xam la xam-xam la de est-ce que vous comprenez heure bi heure bi université université war nañu am benn département de transformation alimentaire boo xam ay usine cere usine cere ay usine cere nekk Sénégal ñu koy yi père père père man dama tàmm di wax ni damay def wax fii samay live ne leen lépp lu seen maam yi doon def bu ngeen ko jàngatee bu baax di ngeen gis science si sama live yu bari da toj ci loolu toj ci loolu ne bu len négliger li sen culture yi sen culture maam yi doon def lepp boko xolé boko boo rek c'est scientifique en fait moins folklorique que vous croyez gaay beur bëri dañu foog ne seen cosaan yi am sen village yi fecc yi gaay di fecc ci village yi di dem ci àll bi di fecc di teug tam-tam affaire yo ñom ñom dañu fo ne affaire sauvage la mais boo ngeen jàngee bu baax expliquer nako fi ben live bu wax leen connexion bi gaay di def ak nature bi ni koy defee affaire yooyu yëpp ngeen xamni c'est basé sur des faits scientifiques. Les ancêtres ne faisaient rien par hasard. toj naa ko fi dem leen ah xool ci laaj avant et vous verrez quoi. xanaa xanaa gisoo tubaab bi tubaab bi daf ne science et technologie. dëgg la science et technologie tubaab bi wax. sëñ Saliou Mbacke ñëw ne xel koom. Mhm. am xel mo indi koom. billaay ndeysaan xoolal ma loolu rek. fii ne département universitaire bu ne Sénégal bu ne.

ma ma rappete ko ma baamtuwaat ko. boo delloo sa bopp di nga gis sa bopp. waaw. boo delloo sa bopp di gis sa bopp loolu moom phrase bu ma neex la. boo jógee boo jógee bay dem boo jógee bay dem. waaw waaxul jëm ci sa bopp. Mm-hmm. waaxul jëm ci sa bopp. boo jógee bay dem. waaw waaxul jëm ci sa bopp sa bopp. gis boo ko defee kenn du la dara. boo jógee bay dem. waaxul jëm ci sa bopp rek. waaw koo mën a dimbilil dimbilil bu koo mën a dimbilil dimbilil. jëm si sa bopp. waaw maanaam sa bopp mooy nun mooy nun ñii c'est le peuple sénégalais eh. lépp luñ mën a def. nun peuple bi. Eh, nañ nañ voilà nañ waaxu jëm ci nun moo tax sa bopp rek moo tax ces politiciens là amul ku ci mën a defar réew mi. daañu la jàppale daañu la jàppale mais réew mi li koy defar mooy réew mi. daga la père. foog ñun ñëpp ma neex say waxtaan. c'est ah. parce que da ngay confirmer rek live yi ñu fiy def yëpp dafa mel ni dag ñu doon dañ ñu doon. man daal jaaxal na ma trop dafa mel ni daal da ngay confirmer li nga xamante ni moom laa fi yàgg di toog di wax. waaw waaw da nga ñëw rek te nekk mag nekk suñu père ñun ñëpp. Euh, vraiment euh, indi ñu waat ñu wax ñu daal ni daanaka daal ma jëy daal lu mu fi wax nii yëpp naal danga ko fësal da nga ko tënk ci benn waxtaan rek. Mm-hmm. voilà wax wax ñu ko ñii ci benn heure nii quoi. macha allah loolu la wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla merci beaucoup njëkk a réfléchir njëkk a réfléchir ci àdduna. Mm-hmm. mooy sa ñoom

yaa ngi bëgg ah, yaa ngi bëgg a feebar ah, waaw yaa ngi bëgg feebar te feebar la sax daanaka waaw te feebar boobu nag la ñu fas yéene faj waaw moom la ñu bëgg faj nag moom la ñu bëgg daal mu daal di daj loolu nag faj ko loolu pour nga faj daam loo xam ne gis nga aw ngóot mhm. aw ngóot loolu nekk ci xaj mhm. kutt xam nga kut mhm. moo dugg ci nopp xaj boo ko rek dana jàll dana bëtt nopp bi lii nu tubaab bi defal fii foog ngi dindi ko sànni ba mu set del suñ del suñ aada ak suñ diine c'est la seule solution pour créer un type de sénégalais c'est la seule solution pour créer un autre type de sénégalais c'est la mm-hmm. dañ ko formaté dañ ko dabb daax mm-hmm. yàlla ji muy tudd daanaka da koy wax nii rek parce que ñëpp a ngi koy wax waaye nu ñuy gëmee yàlla sax xamu ko billaay bu doon dëgg bu doon dëgg suñ imaam yi man dara ci askan wi. Mm-hmm. mais ca ci jumaa ja la ñuy ci ab séddoo ab séddoo di kero yaa am mille maa am deux mille tey. billahi wallahi <laughs> <laughs> dëgg la de fer. xutba yi xutba bay xot yi xutba yi le politicien local le politicien local. daanaka mooy defar xutba mooy defar xutba bi mooy defar xutba bi père loolu moom a gën a metti man gis naa ko ci ci kii yooyu xam nga yooyu ay weakness la ay weakness la yoo xam ne ay weakness la yoo xam ay faiblesse la yoo xam ne boo xasee dugg ci un peuple rek peuple boobu day dem ba dégradé wu billaay moo ñu dal diine boo amul diine mënoo xàmme ay valeur billaay boo amul diine boo amul diine boo amul diine ci nit ku ñu laaloo de xamoo foo jëm te foo taxit kenn du la wóoru mhm. mosoo dox ba gis ab góor jigéen bu am diine billaay fecckat bu am diine doo ko gis mhm. workat bu am diine doo ko gis waaw sàcc bu am diine doo ko gis kon diine da diine diine dafa am solo am solo goo xam ne bu ci suñu ulama yi jàppoon bu ci suñu ulama yi jàppoon jublu ci askan wi tubaab bi du leen jël billaay kenn ku ne li nga toog toogoo fa la ngay def daanaka dafa dañ laa programmé. sa télévision ngay xool rek ñoo ne mel na mbaxana nga ne du ma nelaw te. père per père père programme la de. ah. ma ne programme la du dafa me ni dañ leen a programmé programme. dëgg la loolu gisoo la mondialisation. programme xool la ah mondialisation une mondialisation boo xam ne. ñi ko def. Mhm. ñi ko def ab jullit newu ci. ab africain nekku ci. kilifa newu ci. amul benn considération bu jox téere sëñ Tuubaa yi mm-hmm. alxuraan boolewuñ ko ci mm-hmm. ay juróom-benn di ñu toog ne nii lañ bëgg a takkewaat àdduna bi mm-hmm. professeur sénégalais boo gis la mondialisation la lay jàngal te yoonu ci pomp bu ne yow ay mag dajaloo boole seen bopp boolewuñ la ci laajuñu la xam-xam invité wuñ la say dëkk considéré wuñ leen sa diine bokk ci yaa ngi dégg. billaay yow ngay xataraayu naan professeur philosophie nangam la mondial moo dama leen di yërëm buñ koy wax. père ma ne leen damaa toog fii ma un jour gis nga man bu ma kenn dugal sen waxu gouvernement nak ba ngeen di sañ sen gouvernement kenn ñëwuma laaj sama avis kon bu leen ma wax ni ci laa bokk. bu leen ma ñëw di ma wax démocratie ak xaw ma lan euh, xaw ma lan parce que bi ngeen koy sànc ñëwu leen ma ba sama buntu kër fëgg ma ne ma ndax bëgg ngaa bokk ci li am déet kon tey jii boo ma bëggee wax ni da nga bok ci démocratie da nga bok ci gouvernement loolu yabaate la quoi parce que en fait dañuy bâtir seen système jël seen yëf togg ko teg ko ci kaw askan bi bëgg ask dugal ko ci bopp askan bi comme li ngay wax rek wàllu globalisation ak mondialisation ñëw dem toog togg seen i ay mbir yu xasaw ñoo bëgg ko yàkkal askan bi ne da ngeen ko lekk par force léegi ñun ñi ci gën a dof ci ñun nag mooy ci ñu intellectuel ak ulama bi ñëw bëgguñu koo séddale ndax cër bi leen jox ñun de ñoom ñoom foog ñu nekk ci li li li yi wax ndax cër bi leen jox wala jox seen doy na waar. en en en tout cas en tout cas. en ñu pour revenir. waaw la amoon nan fexe ba dootu am. waaw fexe ba dootu am. tubaab bi daal lànk nañ lànk nañ tànkam yii. ko teg suñ kow dëgg la. adduna bi soppi ko na soppi xam ne. da yor yor boo yoree bokk nga boo yorul bokkoo te ñu doonoo yor noo yor ñoom yoruñu. waaw. maanaam li nga xam ne ah. mooy développé adduna lépp. Mhm. ginnaaw ba soq ko ci nun nun la ko yàlla jox. suñ yuur gi mu wëlbati nag. moo tax. Mhm. bu ne jàkk suñ yëf dañuy defee seen yëfa. dëgg la. boo ñëwee New York ci Diamond Diamond Diamond district di ci dox. xam nga mhm. lay wax ay juif bari xaalis waaye. juif yi ñoo bari xooli seen jama ay juif bari xaalis da ngay yéem jamaa bi. ay ay man damay yéeg ci kaw étage yi xool. mais da ngay dégg ah juifs bari xaalis ah bib xaalis waay mu wóor ma ne africain yi afrique dañ ko jëlee njëgu mburu njëgu mburu joxuñu leen ko ci billaay ces mêmes gars ces mêmes types ñoo créé cette suprématie din ko gàll ñu di ko gëm tout moo tax ñu war a taxaw bañ ñu dul ay raciste xamuñ son ñuy raciste mais nous de des victimes tout te li ko war a mën a dindi nag amaguñ garab gi ndax mhm. garab gi ñi ko war a ñi ko war a dindi mooy mais mais mais père nga baal ma waaw ah. euh, fii fii suprématie njëkk a commencé fi suprématie ñëpp ko commencé fi ñu njëkk a dugalee racisme ci ah. téere yi ngi bokk bu fekkee ne nangu nañ ñi jàng fi euh, diine nangu nañ ni euh, judaïsme moo njëkk après teg ci christianisme après teg ci l'islam moo mujjee ñëw bu fekkee ne nangu ngeen ci chronologie boobu di ngeen nangu ni juif yi ñoo njëkkee seen Torah Ceci bir sen Torah bi foofu la malédiction de Cham nek maanaam fi ñuy nowee yonente yàlla Nuux am ñetti doom dali, di alak ben doom bi ba doom bi nek nit ku ñul fofu lañ ko ñëk bindé mo maanaam naan seen Torah boobu juif ñom ñoo ñëk a li nga xamante ni moy racisme ñom ñoo ko njëkk a ci aduna bi en commençant par falsifier justement ce bout d'histoire pour soppi nit ku ñuul ne ko euh, euh, nit ku ñul moy doom moy Cham Cham moy juri nit ku ñul li plus tard té ay à la doon ci jafet ak euh, euh, euh, ak ak j'ai oublié son nom quoi mais ñom ñoko dit que c'était si livre mm. avant Christian ñëw di copier ba yeneen naar yi ñëw di falsifier aussi di jël di copier par exemple domaine le vrai mhm. juif c'est un africain noir comme toi

suñ doom yi ñun lii ñu nu jàngal buñ ko sol suñu boppi doom yi déedéet. Mhm. lii ñu nu jàngal mu sol suñu boppi doom nan dem sur le terrain maanaam le le professeur sénégalais mooy uude bi ci bunt bi. yor mhm. paakaam di ëw ka dagg. kooko mooy enseigner xam-xam boo xam ne boo ko tegee bët am xam-xam tuuti war nga faa man defal war boo ko tegee mu dagg boppam. billaay le professeur sénégalais professeur bi deug deug ki xamna mo la mën jàngal yow bu borom xam-xam bi moy baykat bi nga xamne amna souf waye suuf gob bu mbéy amuko billahi nga diko xol muy xoos xoos xoos xoos xoos ngay jàng ci mom hmm donc reverse lañu war a def dem ci biir terrain bi door di ñëwaat en compétition légui dama am lu bëgg fa fësal li li tubaab bi jàngal li tuba bi jàngal xam lu ñu ci mëna a defa bay di ko jox bëggub saret mu defaral na ko waaw ah. main d'œuvre daal waaw ma damane ne lu làkk yi lu say làkk gën a xóot-xóot yow lañ gën a nax dama ne lu say tubaab gën a xóot gën a xóot yow lañ gën a <laughs> suul ba nga ba nga ne ba nga fat wallahi c'est vrai de su comprenez en tout cas en tout cas le peuple sénégalais et les peuples le peuple les peuples d'Afrique waaw ñoom ñëpp wóor na leen ne ñi jàngi woon ñoo gasum pax suul leen billaay dëgg la c'est une triste réalité mais c'est la vérité dama ne am am menuisier lekkagul kees sëriñ daara ah, sëriñ daara dëppagul kees sànd ngay jaayatu dëppul kees marchand ambulant dëpp milliard mooy ñi jàngoon ba dikk ñëw di jaay tubaab nga dénk leen nga dénk leen ñu ne ko fuuf parce que mélanine moo wàññi ko tubaab bee leen yàq. waaw. <laughs> c'est même type même type ba tey ñoo dawaa dikk naan jox leen ma réew mi. moo tax Sénégal war cette fois ci ñu def attention te may soññ may soññ bu baax a baax sama xaritu ulama yi. alxuraan bu fo. boo xasee jàng ba man ko surtout nga am ngeen diine tut ay nit xam ne euh, dara teel la la ci bëreetut tiim mhm. askan woo xam ne am nasaraan mu leen takk ab sarit di dawal nga mhm. gàddu sa xam-xam ulama defe ne yaa ci nekk boo dee da nga dem sawara boo muyul ah wala moo tax moo tax imaam yi nan nan nangu ne nan nangu réew mi yàqu na nañ nangu ne defaraat askan wi jot na nañ nangu ne juumoon nañ juumoon nañ mm-hmm. pour seet ni ñuy def ba mm-hmm. réew mi illaahi waaye jànkati nasaraan yi jànkati nasaraan yi ma gis mm-hmm. ak yenn kilifa yi diine yi nga xam ne mercedes leen gënal alxuraan kaamilub alxuraan billahi am mercedes leen ko gënal wallaay wala kër almaadi père daal ah ma ne lenn rek laay ñaan man Au Sénégal jox micro ma télé am ma wax fa deux heures de temps. Ah, jël deux heures de temps xam Sénégal la vérité la vérité. je te promets. <laughs> xamone wax Sénégal ko légal. deux heures de temps wax vais wax Sénégal. Ah. je te promets. so bëggee nek dans l'insécurité Sénégal. booy wax dëgg booy wax dëgg dem ci kaso bi wala nga wax dëgg ay ponk fekk na sa dóor la ba ngay bëgg a dee wala nga wax dëgg ñu taal sa kër waaw Sénégal kenn dafa wax dëgg waaw luy pexe bi per nag lan la ñu war a def pexe mi daal mooy pexe mi mooy il faut un tout de sénégalais hmm, defar jikko yi defar nit ñëw tuub wala maay dikk dugg askan wi dikk toog ñu hmm. àndandoo tuub pour trouver leneen ñun tubaab bii. dëgg la baara baara baaraamu tubaab bi lañ top rek. dëgg la dëgg la je suis d'accord avec toi. baaraam bi rek baaraam bi lañ topp rek. kon xam naa kon baax na ñu ma fësal ma kii rek xam naa ma répondre question yi parce que gars yu bëri posé nañ question yu bëri. kon baax na mais euh, mais ñu ngi lay bëggee commentaire yi ma fi gis moom macha allah ñu ngi ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. ñoom ñëpp daal franchement yi ma fi lire moom. maari day taali moom wax dëgg yàlla moom. mais neel amin rek quoi. parce que Cheikh Omar Cheikh Omar nay ñëw Cheikh Omar nay ñëw. waaw Cheikh Omar boo waroon dugg moom xam naa dafa prochaine maanaam ba suba la Cheikh Omar ñëw Omar Baye aussi waaw moom waroon naa dugg moom ñëw kii yàq yëf yi quoi Omar Diagne euh, imam moom ñi fi woon sànq xaw waaw merci beaucoup maa ngi maa ngi maa ngi ñaan jàmm and love ah non merci beaucoup jaajëf jaajëf merci Ousmane dafa mel dafa confirmer live yu bari yu ñu fi def loolu rek la man nak j'aime bien quand on vient et quand quelqu'un vient et confirme ce que j'ai l'habitude de dire ici et de faire donc euh, di ko remercier rek voilà diko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram te wàccee bu mu waccé bopam ba nek mag bi mu nekk ba pare ñëw ci jeune yu mel ni ñun di waxtaan ak ñun di ñu déglu ñu déglu vraiment ngatché nga ma père amul morom donc euh, ñu koy ñaanal wér gu yaram ak gudd fan rek comme ça mu yag du duñu du ñu du ah parce que père bi lu fi wax yëpp manam c'est ça quoi ah hein, Kéfrène père bi mom doyna war donc xana vite fait rek avant may dougal bu fi Cheikh Oumar nekkee Cheikh Ousmane euh manam Ousmane imam Cheikh Oumar bo fi nekkee mang lay ziar sama copain nak gisuma ko fi Ousmane Ba bu Paris metti ma trop li fi gisul waaye avant may dugg ci kenen damay répondre vite fait question bu ma buñ ma poser won vite fait ak euh, El Mokhtar bi wax l'Africain est un Européen noir El Mokhtar def fi ben ben live où carrément que les Africains sont devenus voilà, les Noirs sont devenus euh, ou ont la mentalité des Grecs les Noirs aujourd'hui ont la mentalité des Grecs carrément la mentalité li c'est la même mentalité que les Grecs d'avant c'est même plus européen c'est la grecque la Grèce carrément j'ai fait un live où j'en parlais euh, où je disais, j'expliquais l'origine de la bestialité, pédophilie, etc. et de, des dérives, euh, voilà, de la dépravation sexuelle. ce live-là, je parlais justement de cette mentalité que les Noirs ont aujourd'hui. J'en ai souvent parlé, donc euh, t'inquiète pas. Légui, Albouri aussi, je sais pas s'il est toujours là ou il est parti. Albouri, oubliez le passé. Les Africains doivent oublier le passé. Mais bon, Albouri, comment tu veux qu'on oublie le passé Comment tu veux qu'on avance si on oublie le passé Irais-tu dire à un, Européen ou à un Juif d'oublier son passé Le passé, c'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est ce qui représente ton présent. Tu, te, tu tires des forces du passé pour pouvoir bâtir un meilleur futur. C'est, c'est, tu peux pas oublier le passé. Nous réglons le passé. Nous Nous ne passé. Euh, on n'a on, pas de... L'histoire du Sénégal n'est pas, pas encore écrite, Albouri. L'histoire du Sénégal n'est pas encore réécrite. Et tu veux qu'on oublie ce passé-là, qui n'est même pas écrit Comment tu peux constituer un futur, construire un futur, d'accord, si tu oublies justement ton passé donc pourtant euh, je pense que c'est pas possible d'oublier le passé quoi par contre si tu dis oublier la douleur de rassasser la douleur du passé euh, ça c'est vrai que c'est pas bon tout le temps parce que justement on vit dans un éternel euh, euh, une, certaine comment s'appelle douleur qui revient tout le temps constamment un certain chagrin et ça ça amène des énergies négatives je suis d'accord mais de fait le fait d'oublier carrément le passé, le fait d'oublier qu'on a vécu l'esclavage, d'en apprendre, d'en tirer des leçons, le colonialisme, d'en tirer des leçons, euh, non, ça nous permet d'avancer et de bâtir... Euh, euh, oui, l'avenir sort du passé. Merci Neymar Yemsa L'avenir sort du passé, donc on ne peut pas oublier le passé. Ça, c'est ce que disait Albouri. Amna kenen je sais plus si c'est Yakuza, je crois que c'est Yakuza, là. Yakuza Diop, moi, qui était le dernier pharaon ou quand est-ce que le peuple noir est tombé. Euh, d'après l'imme constaté, d'après ce que j'ai euh, vu, d'après ce que j'ai trouvé, euh, et loolu pour ma qui dama euh, euh, émission ou deux stv di def cosaan ça a démb un truc comme ça donc j'ai vu que les derniers épisodes là euh, Boudon Warsi wax si Njaajaan le peuple wolof comment ils ont fait pour arriver au Sénégal et tout euh, dafa am ci ñetti gétt yi sànc géttu wolof au bord du fleuve Waalo wala du si du fleuve bi euh, dafa am ñetti peuple yi nga xamante ni ñoo fi ben sànc benn peuple bi biñ leen laajee fan ngeen jóge euh, selon l'historien du di wax si émission bobu nonou mun nako partager ku bëgg ma partager ko émission bi rek ma partager ko mi ngi fi ma gardé tellement ça m'a ça m'avait marqué moy euh, pa bi historien bi di expliquer ci les trois peuples qui ont euh, été les premiers à s'installer au Walo hein, pour être le peuple Djolof ou le peuple Wolof Walaf d'accord Néna, na dafa am ci benn peuple bi damay fàtte tur bi en wolof bi ñu leen fan ñom ñu ne ñu ngi jóge boru Égypte ñu ngi jóge Égypte ci oui je te le passerai tout à l'heure il y a deux épisodes quand tu écoutes tu apprends beaucoup de choses franchement ñu ne ñoom ñu ngi euh Égypte Égypte sax la que wax la ñu la peuple bi dafa peuple euh, euh, ils avaient tous des trucs en ferraille Madame, commencé ferraille peuple Sénégal ah, peuple le euh, en pharaon bi persécuté mu di pharaon bu wax Pathé Lamine Pathé Lamine la tuddu histoire dembu walo voilà merci Lamine Diallo Pathé Lamine la wax bi mu waxee Pathé Lamine historien bi néna na bi mu defee recherche kan moy Pathé Lamine dafa tombé pile poil ci ki nga xamante parce que l'historien bi tombé ci histoire bobu dafa dem ay def ay recherche xol kan mooy euh, Pathé Lamine ci pharaon Égypte yi bi mu defee recherche dafa gis ni Pathé Lamine c'est Ptolémée Ptolémée Ptolémée y a fàttali doon wax Ptolémée les généraux d'Alexandre. Il a a Alexandre le Grand donné à Égypte a envoyé Égypte après il a laissé ses généraux ses généraux sont restés en Égypte et ils ont dirigé l'Égypte. Alexandre le Grand il est de Macédoine Vous hein? un Macédoine c'est à côté de la Grèce et tout machin à donc du coup Ptolémée c'était un de ses généraux Ptolémée Ptolemy euh, professeur bi nee bi mu defee recherche nee ptolémée la donc quand est-ce que euh, l'Égypte est tombée le, le, le, dernier empire des Noirs est tombé c'est quand voilà Mungo Kefren donc c'est quand Alexandre le Grand est venu en Égypte et a dominé l'Égypte foofu la gaday bu bari amé gaay yu bari daal daw wala bi Alexandre le Grand régné Égypte ba daw ba dé le Ptolémée jël Ptolémée nak de nek fa di len tek leen teg métit bi mu leen tegee métit nit yu bëri yu bëri jógee foofu noonu Égypte daal di daw ñëw dugg ci biir Sénégal foofu la tëgg yi njëkk ñëwee wolof selon euh, histoire boobu noonu naa leen ko partagé ku ko bëgg rek na ma ko laaj en inbox ma jox ko ñaari euh, émission yi ñaar la ci ñaari fàcc la di ngeen ci jàngal lu bëri ci njaajaan njaay ak ni wolof euh, nekkeek affaire yooyu ngeen gis ni wolof yi sax ñu ngi relier seen bopp ak benn historien sénégalais boo xamante ni moom moo njëkk bind histoire u Sénégal ci à l'époque kooku ay écriture am ak lu mu bind ci histoire Sénégal mi ngi ifan ba léegi kooku moo sax moom sax nee na selon euh, te kooku yàgg naa c'est à l'époque euh, coloniale bi fa tubaab yi nekkee boobu la bind histoire wu Sénégal nee na kooku ci biir écriture am bi mu bindee dafa ne euh, carrément ni selon moom ay recherche am sénégalais la bu mënoon bind tubaab dégg naa ci jamono yooyu ay écriture am ñu ngi ifan ba léegi damay fàtte turu waa ji waaye naa leen ko jox ku ma laaj inbox rek ma jox ko ñaari documentaire yi di ngeen ci mën a gis turu waa ji ak li ma leen di wax nii yëpp quoi. waa ji nee na bi muy euh, bind histoire du Sénégal dafa dem di wër ci village yi di laajte géwal yi li ñu ko wax ak li ko ñëpp wax li bi mu dajalee information am ñëpp dañ ko wax ni Yoro Boli Diaw waaw peut-être ah nee na bi ñëpp liñ ko wax mboom. nee na mi ngi tracé euh, origine u sénégalais c'est directement en Égypte xam nga Cheikh Anto Diop que je wax mais Cheikh Anto Diop a fait ay euh, ni ñu koy ay ay études scientifiques maanaam dafa jël ay fragments euh, de de de peau dem euh, essayer ko carbone 14 pour faire des def ay datation etc etc, mon matériel scientifique. waaye qui ni malani c'est un gars qui existait à l'époque coloniale moom amul woon ni ñu matériel scientifique yu mu des recherches. mais pourtant selon lu mu def selon enquête sénégalais la nit ku toi, bien qu'on s'entende mu écrire histoire au Sénégal Bon, mu def ay les sénégalais viennent de fi nga antique donc pourtant tout Yakuza Diop euh, donc voilà l'empire selon les dernières informations que j'ai les noirs euh, ont commencé à perdre la puissance en Égypte à partir de Alexandre d'accord Alexandre ñëw na dominé Mésopotamie na après Alexandre Gagnon dafa jox généraux mi kenn ci généraux yi euh, euh, Ptolémée Ptolémée ab la aussi Ptolémée nak euh, marié wuna ak ay ba ay métis ba Cléopâtre ci ci ci ci ci la Ptolémée la métissage Égypte ba dynastie quoi donc orienter ses recherches côté bobu yakarnani naa ni euh, ci bo ci bo ci euh, bo ci defé ay recherche ci sens bobo dal Alexandre bu mu Dal. si nous commencé euh, di wàññeeku lu bari. parce que Boy set xos yi ñëw nañu xos yi ni xos ñëw nañu envahir Égypte mais téwul ñu daanu xawma nak ay tuap lañu amna ñu lay wax naan ay lañu am sama copain bu Maka. Maka Faya bu fi une émission ak man Mom nee na que euh, mom amna confirmation à ay nit yu ñuul la euh, Amna ñeneen ñoo X aussi ne Ixos ay la envahir Égypte pendant 400 ans euh, mais Égypte ngeen baal ma pardon jugaat na ci loxo xos yooyu naanu maanaam xos yi yàquñu Égypte carrément taxul Égypte daanu Égypte jugaat na waaye euh, teewul ni ak Alexandre le Grand il était très fort ñëpp xam na ni euh, militairement il avait beaucoup de complices euh, ils se sont il s'est aidé d'alliés de d'autres régions pour pouvoir faire tomber l'Égypte pharaonique quoi ou l'Égypte antique donc orienter ses recherches sur ce côté boobu voilà euh, Mohamed El Bachir mais il faut lire le livre de Alioune Ndiaye Diamou Sénégal waaw koku mom ko so lien rek wala nga def ma cadeau colis rek inshallah hein, Mohamed <laughs> kooku moom yoruma livre bobu mais nako set inshallah donc Moïse ay noir le ah mais forcément parce que est-ce que Moïse du pas Moïse nit ku la de man de Yakuza Diop a ni Moïse nit ku ñuul la musuma gëm ni Moïse euh, nit ku encore suprématie blanche jël na aussi yonent yëpp daal di leen weexal maanaam comme ni ma leen ko waxee sànq rek lépp lu am importance rek ñoom dañuy jël seen kanam jël seen visage teg ko fa man musuma gëm ni euh, yonent yi am na ñu ci weex kenn rek laa gëm ni yonent bu weexoon la ah muy euh, ni ñu koy waxatee euh, ki waay ah, damay fàtte tur bi waay après Adam rek ki nekkoon après Adam no Noé Noé Noé la wa Noé lañ wax de Noé dal la dégg dal ni bi muy juddu dafa judd ak pouné wala dafa dafa wéx dal bi koy jur dal mom dal mom la amna histoire bu mel non amna sax bible bi mi ngi koy euh, ni Noé bi muy je crois que j'ai les trucs mais mi ngi sama benen portable koku tamit ku ko bëgg rek da nga may bindal ni ma li nga wax ci Noé noonu ndax mën nga ko partagel euh, kooku nag kooku nag tàmmu leen di lire bible bi du ngeen ko faral di gis waaye nee naa leen euh, El nee Noé noowee la am na ñu bëri euh, yoo bëri yoo xamante ni mi ngi ci bible bi ñu làq man loolu moo tax may liir bible bi parce que yu làq yooyu laa bëgg di di xëcc ji indi di ko bokk ak yéen donc euh, euh, waaw nee nañ daal bi daal bu muy juddu papam mi ngi koy décrire comme nee na comme malaaka yi ñi nga xamante ni dañoo daanu waxul malaaka yàlla yi nekk ci kaw ñi daanu ñu ngi leen di faral di woowee ceux qui sont tombés du ciel maanaam ni anglais bi di wax les fallen angels maanaam ñi nga xamante ni ay foolin lañu ay manam ñu les anges déchus ah loolu la wax loolu le texte biblique bi wax papam néna bi mu juddoo dafa melni ni malaaka yi nga xamanteni ni dañoo daanu té dafa wéx tal non la ko décrire man dama ci jàngoon rek ni wax jooju dafay melni ni euh, ñu wéx ñi tuba bi ay euh, dañoo ndurok ñi nga xamanteni ce sont des anges déchus est-ce que fofu xawma dal daal bëgguma indi ay théorie mais dal c'était un peu bizarre mais ku bëgg rek naa ko ko partager, j'ai le le le le verset biblique j'ai le truc ma jox ko ko nga xoolee ko nu la neex rek après nga approuvé ko nga euh, tabax ci sa gëm la la rek quoi donc euh, euh, oui alors Kefren qui dit exactement Kefren ça pour sortir une main blanche se supposer qu'il était noir pour les connaisseurs bah oui <laughs> il était noir mon frère Moïse n'est pas venu et a retrouvé des des noirs en Égypte Moïse était noir parmi les noirs donc euh, xoolal rek yow Moïse ñëw nek fa benn tubaab dund parmi des noirs ci ci loolu xaw doy donc Yakuza Diop man pour man Moïse nit ku ak yeneen yu Issa sax bi wax Jésus euh, ci livre bi ak Jean Baptiste mi ngi koy décrire daf ko am ni la moko ko fi fii nga gis ni aussi euh, Isa bobu sax Jésus nit ku weex existé wul way Jésus nit ku ñuul mo gëna existé attends en tout cas nak limay wax ni bu dem bu bu kenn dégg li foog ne bëgg wéxal addu dama bëgg ñuulal aduna bi yëpp né aduna bi yëpp da ñuuloon du lool la bëgg wax waye li amna yu bari yu tuba bi jël falsifier histoire bi man motax ma dem ba gëm ni sax li fi dëgg fi ci aduna bi wul manam presque danaka fi dara du dëgg dara du deug ay fen kase la ay katch kase tuba bi lim fu tek lepp muy livre muy lo gis rek lu ci ay katchum kase ay katchum kase amul dara dara dara lu fi deug ba tax na may wax souvent vous vivez tous dans de l'illusion manam fidal dal illusion rek lañuy dund dada ñu daray deug voilà ku ci dem nak ba foog na yaaw yaangi ngi dund ci un monde ba nga xamanteni c'est bourré d'illusion c'est kooku c'est c'est parce que tu es malade voilà et ñun nit yu ñuul ñi kon que ñun ñoo nangu illusion boobu ñun ñooy ñi gën feebar ci àdduna bi parce que ñun ñoo nangu fenn tubaab yooyu di ko sax dëggal wala di ko dërmaal wala di ko doxee wala di ko waxee ndaxte euh, alors que ay fen la à la base ñun daal ñun ñooy ñi nga xamante ni ñoo gën a dof ci àdduna bi moom moom moom moom moom la ñenn ñi ñu woowee aliéné ñun ñun ay alliés lañu parce que lepp li nga xamante tuba bi jël nako ko muy ay katch rek ñun jël nañ ko def ko muy deug diko ko diko jëfé bayi alors que bayyi suñu bop bayyi li nga xamante mom moy li suñu maam ñu jangal ah, ngir mëna dundu ngir mëna dem jël yëfu jamur ya nga xamante ay katch kase la bëgg ko fësal suñu bop ba daanaka ci diiné gi sax dañuy dem ba di la lo ni amul ben yonent ba nga xamante ni nit ku ñuul la ah yakuza man lay wax rek man musa musuma gëm ni nit ku wéx la man de sama walu bop maam ngi sama bop man lépp luy xalaatu nasaraan lépp luy xalaatu nasaraan ci lépp li nga xamanteni fessel fësal nañ ko ne ñom ñom ñoo ko créé wala ñom ño nekk ci kanam ak nangam dama ko génnee sama bopp waaw man dal je suis plus colonisé man je suis plus colonisé spirituellement je suis plus colonisé économiquement je suis plus colonisé intellectuellement jeexna na dal euh na ko may lu ma jox dal wala na jël lu ma jox su fekkene ne neex na ma ko nangatul duma ko nangul dara dara dara dara nakh da euh, ko fësal wala mom mo am deug wala affaire yu demee noonu voilà man maytuma ko dara waaw mënutuma manipuler euh gisna ay fenam gisna ay katcham gisna lepp li nga xamante ni nar na ko pour mënumaa nax nax samay askan sama samay nawle euh, loolu yep nak aujourd'hui je peux le mettre en face manam muna naa sama bop ni man je suis conscient de ce qui se passe voilà du nak damay caa càggani damay jay sama bop waye man muna jël li fenu nasaraan si tek ko ni voilà manam xeebu ma sama bop xamna sama bop xamna naa ki ma doon biologiquement génétiquement ah bëgguma dugg ci ay détails waye biologiquement ak génétiquement la wax dé wax ju xoot la wax biologiquement génétiquement xamna ki ma doon intellectuellement xamna ki ma doon spirituellement xamna ki ma doon lenn rek moma te mom rek la xamul sama ruhu gannaaw ci yalla ci fan la ko yàlla sàkkee yooyu mbir yoy gis nga mbir yu xoot yoy non waaw man yoy moma te tëx fu mu toll nii te yooyu xalaat xamna ni bo ci dugg sax tam nga tàggaloog sa sago té bugguma ci ag waye dal lépp luy nasaraan bi teg fi ci aduna bi ni muy livre ak muy xam ak muy nangam muy lu mu bëgg a gëmloo man de duggatul sama bopp bi xaw ma nag yéen waaw man gëmuma ni benn yoon ni euh, nasaraan bi moo supérieur nit ku ñuul euh, gëmuma benn yoon ni moo ko ëpp xel gëmuma benn yoon ni moo ko ëpp spiritualité gëmuma benn yoon ni moo ko ëpp dara daal maanaam daal euh, nasaraan bi daal yàllaa ko bindee nu mu mel man yàlla bindee ma nu mu mel na ku nekk respecté sa morom man daal damay xeex pour que ñeneen xeet yi une espèce humaine parce que bëgguma wax race humaine ndax benn rek mo am a une espèce humaine yi maanaam kep kuy nar kep kuy chinois ak kep kuy benen xet tubaab ak na nga meunti don nga jox nit ku ñuul ki cieur bi nga xamanteni ni la yellok nak budul won ñun tay ji ñom ñi duñu nek lolu yalla ko dogal wa man lolu la gëm te gis ni rek joxuñu ñu suñu delo delloowuñu nar bi wala ñu nar bi xoromam delloowuñu suñu nak te ñun ñoo leen jàngal xamal ñoo leen yee ci àdduna bi ba jox leen li ñu am yëpp ba day jii nii sax bu ñu buggee ressource naturel muy chinois bi muy tubaab bi muy naar bi ñun ñëpp ñoom ñëpp fii Afrique ci ñun lañ koy jëlee. waaye munu mënuñoo nag di jëlee li ñuy dundee ci ñoom ci ñun ba pare di ñu toroxal voilà man tax euh, ba tax na il faut comme ni ko Pa Ousmane Dramé waxee rek ñu jug suñu bopp daal di gëm suñu bopp. daal di nag aussi comme ni ko am na benn commentaire bu ma ko gisee waxee aussi tëj suñuy frontière wala suñuy robinet ba képp ka nga xamante ni joxuñu cër ah ñu daal koy imposer cër parce que le respect nak da nga koy imposer doomu aadama da nga koy ñoddi par force respect du loo xamante ni da nga koy yalwaan dañ ko war a imposer ba keroog ñooñu di ñu jox cër ah euh, ñu mën a séddoog ñoom wala ñu mën a jënd ak jaay ak ñoom gannaaw nag jox ñu ñu cër jox ñu ñu respect ñun mënuñu ak di jëflante ak ñom man lool la gëm man dama bëgg restaurer le respect euh bi nga xamanteni mom lañu la ñu mérito ci suñu diggante ak ñooñu manam

waaw gëm daal ni euh, nga nekk bambara nga nekk wolof nga nekk tuukër tukuleur nga nekk manjak nga nekk joolaa nga nekk séeréer nga nekk lébu nga nekk pël ak koo mënti doon euh, tu es ce que tu es maanaam un africain et tu es fier et tu dois être fier et tu dois être fort xamal ni doo golo ah loolu ñuy wax ni seen théorie scientifique bobu comme quoi que yow si golo nga juddoo ba bo démé stade ñu sanni la banana nga nek fofu di joy ak nan ñu may traité wala kuñ fa wax sal noir nga tepp di joy di tëbaka dal na xamulo so bop ku insulté insulte raciste nga joy c'est parce que xamulo so bop normalement nit ku ñuul ku xam bopam génétiquement biologiquement spirituellement et culturellement bu la tubaab bi ñëwee saaga la ne la sal noir dang kay xol nga ree ko comme ni ko di parce que xam nga yow yaay kan ak li yàlla def ci yow gëm nga ko intégré nga ko bu ñëwee tamit sànni la banaana di la wax ni yow golo nga nga ree ko waaye doo nekk di mer ak a yooxoo ak a tëb di dal parce que loolu égo rek lay laal waaye bu mu laal sa intégrité physique bu mu ñëw di la jéem a mbaj nga naa ko man de dama lay baal man waxewu foofu ku ma mbaj de ma delloo la mbaj bi comme pas nu mu ko waxee léegi Père Ousmane nu mu ko waxee léegi Malcolm nee na celui qui je te remets la gifle man de ku laal sama intégrité physique ma lijjanti kook yow waaye boo taxoo yëg yor sa gémmiñ di ma wax sal noir ak sale singe tu viens du singe jacques affaire yooyu mais man xam naa fi ma jugee xam naa fi ma bokk xam naa fi ma jugee xam fi ma bokk damay reetaan parce que xam naa fi ma bokk maala Kefren nee chope la banane et mange la je chope la banane et je la mange c'est plein de vitamines la banane donc balance-moi ta banane je vais la manger mu faj ma rek danaan dafa bëri vitamine loolu lay def waye duma nek nekk yoxu di tëbaka dal nit da ngay xam sa bop bo xamee sa bop yenn saaga yi racistes yi du la sax tiital balay lay jaaxal da ngay romb parce que da ngay xam sa bop yow yaay kan voilà man j'ai tout démontré ici à travers les lives depuis bi ko commencé ba léegi euh, amul lu mu leen expliqué wul ci côté bobu noonu voilà bo buggee xam rek demal ci live nga gëstuwaat rek di nga gis ni franchement nit ku ñuul yalla beral na loxo waaye kenn gënul kenn am na nit ñuul yoo xamante ni yàlla beral na leen loxo waaye xamuñu ko am na ci ñoo xamante ni sax ah ñoo gën a yées euh, tubaab si waaw loolu rek pour wan leen ni rek ñi nga xamante ni dem nañ ba xam seen bopp ba gëm seen bopp ah, dinañ faj seen jikko ba dox ci li nga xamante ni moom mooy njub maanaam boo demee ba xam sa bopp xam yenn yi mënatoo dox ci yu dëng yi mënatoo def yenn yu bon yi parce que xam nga ni ah, lii moom bu ma yàlla mayee lii moom a may waruma doxale ni ak ni ak ni lolou moy waral comme niko père Ousmane di waxee ñu defar le nouveau type de sénégalais le nouveau type d'africain parce que da ngeen wara a dellu seen xam ni def seen bop seen cosaan yi xam ni seen mam liggéey ngeen ngeen mën suqi seen dënn xam ni yu leen war ak yu leen warul bo xamé sa bop amna yo xamanteni do ko mën def bo xamé sa bop mëno tok ci mbedd mi di saw ci mbedd mi xam nga li ma wax bo xamé sa bop do jël petite wala mbalit di ko ci mbedd mi est-ce que xam nga li ma wax bo xamé sa bop do jël alalu wala alalu mboomuloo nga koy jël diko lek Bo, xamé sa bop bu fekké ne da nga euh, dañ la wax liggéeyal askan bi suba ngon Do, teud de tant que sa mission matul ci walu askan bi ci askan bi Yo, lay def ci yow dans un live ma wax ni xam sa am discipline discipline mom moy indi li nga ni moy cité ci asiatique yi di def ay défilé gis figure Japon gis le taux de criminalité a baissé tellement que police pour jàpp ben reykat wala criminel sax dañuy dañuy am problème dañuy am problème Japon on ko ni policiers yi sax dañuy des fois euh, ay ay ay jour duñu sax ben criminel tellement ils ont la discipline le respect le sens de l'ordre athlétique, manam aussi la dignité le sens de l'honneur xam nga est-ce que xam les premiers les premiers les premiers samouraï Ni indi samouraï ni indi samouraï l'esprit du samouraï avec le l'esprit du samouraï avec justement le combat et tout ça mais c'était des Africains qui se sont déplacés qui ont quitté l'Afrique et qui ont amené ça au Japon Hamgen avons ne ay samouraï au Japon ba samouraï am. Hamgen l'art martial le karatéka ak affaire chinois yi kung fu et tout mais ça vient d'Égypte ça vient des pharaons ça vient de des africains Ils ont actuellement ils pratiquent toujours les mêmes choses et tout ça au Nubie ils font comme s'ils faisaient du kung fu

découverte nak kou koy wax moy lu làqu won wala lu fi nekkoon nga jël ko dal di koy wane né man ma découvrir waye waxu ñu la nga créer création nak ki ko ñëk def moy ki fi jitu ci aduna bi ki fi jitu ki yalla ñëk indi fi né ko xalaatal mu dal di xol environnement am di utiliser intelligence am daal di adapter wu par rapport ak environnement am loolu tank tant que delluwuñu si du avancer suñu dëkk duñu mëna tabax yenn waaw mun nañ jëfandikoo diine comme ni ko per Ousmane waxee ci fànn yu bari mu jëriñ ñu waaye fu mu toll nii comme par exemple ni ma koy gisee chrétien diko def chrétien da ngay gis ñu am seen ay association waxuma l'islam amu ko de dama né rek dama gis chrétien des fois di leen organiser wu ba ubbi seen ay entreprise ubbi seen ay usine ubbi seen ay ay ay yeuf organiser wu bu fekkee ne dafa am ay malade yu fièvre ñu organiser wu ba am ay seen chaise roulante fauteuil roulante am seen ay truc yu ñu leen di dugal doo leen dégg ci ciow ñoo gëna manu ci Sénégal ah la plupart du temps chrétien Sénégal nak la wax moom ñoom laa xam hein les chrétiens en Europe fii moom bëreetul sax gem gem. européens boy xol dematuñ sax église bëreetuñ sax catholique église yi da nga fay dem dimanche day vide ay nit yu ñuul rek nga fay fekk nit ku ñuul rek am gem gem yu mel noonu tubaab bi sax tuñ ci église fi Europe Ñew leen fii Toulouse ngeen xol, mu naan leen yóbbu ci église bu ngeen bëgg Do fa gis tubaab bu fay nekk di julli ay nit yu ñuul rek nga fay fekk ay ay ivoirien camerounais zaïrois ak affaire yu demee noonu Yaay dégg chrétiens au Sénégal ils sont organisés ils ont ce truc là pourquoi pas les musulmans ne s'organisent pas de cette manière parce que comme ni père waxee affaire bi du ay khutba rek khutba bi sax léegi dégg naa maire bi wala wala par euh, politicien bi mom mokay bind jox ko imam bi affaire bi du ay khutba rek affaire bi dafa di ngeen construire des entreprises parce que l'islam may na la dolé bobu may na la xam-xam bobu mun nga ñëw construire des entreprises construire des trucs basés aussi xam-xam bi nga xamanteni mom la yonent bi jàngale pourquoi pas mais pourquoi on reste bloqué justement que sur des écrits et sur des boko deful di nga dugg safara boko ko dugg sakara comme niko pa bi di waxee pourquoi ne pas créer des entreprises Pourquoi ne pas créer des scientifiques Ouvrir des laboratoires Hein ouvrir des laboratoires, ouvrir des laboratoires scientifiques, ce seront des musulmans qui seront dedans et qui feront des recherches des recherches surtout sur la biologie, sur, sur l'astrologie, l'astronomie, des recherches surtout des laboratoires. Et ils vont créer des médicaments à travers des molécules, à travers des plantes. Il y a combien de plantes citées dans le Coran Amna plantes citées dans le Coran. La date, c'est pas pour rien qu'on l'a citée dans le Coran. Peut-être amna vertu Si on cherche des choses, des molécules dans la date, on peut créer des choses dedans. Pourquoi ne pas justement, vu que c'est musulman et que tant d'armes, même les par dogué euh, par par par euh, corps, euh, euh dog, mais pourquoi pas ne pas chercher à travers tant d'armes, qu'est-ce qu'on peut sortir comme molécule pour créer des choses d'autres choses qui peuvent servir la communauté. Nous avons commercialiser. pourquoi pas Nana, pourquoi pas D'autres... On peut, à travers le Coran, prendre tout ce, qui, tout ce qui est cité comme plante, tout ce qui est cité comme animal, faire des recherches pour pouvoir améliorer la humain tu vois. C'est ça, en fait. Man, c'est ça que je reproche à beaucoup de gens. Le fait de, de stagner, le fait de rester au stade de boko defé dugg safara boko defé dugg aljana. Ça, lolu yalla rek kham kuy dem safara ak kuy dugg aljana. Légui, nañu liggéey nañu liggéey nañu fësal mbir yi nañu yee yi ñaax leen ci euh, créer si science man c'est ça que je dis ubbi ay laboratoire scientifique ngeen dugal ci xale yi jàngal len science ñu mën créer ñu créer bàyyi gëm ni en fait lépp créé nañ ko ba noppi am na lu bëri loo xamante créé guñ ko nasaraan bi dafa ñëw la suprématie blanche tënk li nga xamante ni mooy seen xel ne leen fii la limite bi yam boîte bi fermé nañ ko ba pare amatul loo mënati xalaat wala loo mënati créé leneen du dëgg du dëgg du dëgg y a beaucoup de choses mooy li may doon wax live yële passé y a deux live avant ma ne leen perspective limitée mooy boo jëlee ay heurier rek nga teg ko nii di gisee benn bis benn benn façon rek wala jéemoo xol yenen façon gis-gis yi mën am pour mën créer yenen bir loolu la rek bokk yi loolu laa leen won tay tey suñu invité mo don euh, Père Ousmane xamna naa su ngeen amee question ngeen poser ko rek ma répondre vite fait su né euh euh parce que bëgguma goudou je sais pas je veux pas être long mais di remercier ñi fi téw ñep ñep ñep ñep parce qu'on va pas être long nak di faral di goudou day tax du am du am tiafka mais tey euh, lii invité spécial Père Ousmane ni waxna man di donc la voilà suprématie blanche ak privilège blanche privilège blanche matul ñu len privilège xam ngeen lu muy signifié euh, loolu tamit wax nga dëgg waron na ci tout deux rek ma ma privilège par exemple comment ils sont privilégiés euh, surtout i am na benn mot anglais bu ma bu ma retenir oon ça dit quelque chose comme euh, comme ça benn mot anglais bu wax ni privilege is when you think something is not a problem because it's not a problem to you personally privilege is when you think something is not a problem because it's not a problem to you personally euh, ñoom nag

yaa aliénation culturelle spirituelle dalu noir yi ñoo dund kon du problème kon yow munul gis sa problème gis ngeen bi waajooju Conrad rappeur boobu le clip pendez les noirs pendez les blancs pardon tubaab yi munuñu comprendre munuñu jéemuñu sax comprendre lu tax def loolu ñoom lan gis raciste mais pour ñoom xalaatuñu benn yoon si parce que dafa mel ni dafa am lu leen comme ni ko père waxee rek am na loo xamante ni dafa mënuñu koo comprendre dafa dañ seen bopp bi mënuñu comprendre ni waa ji dafa jël carrément li nga xamante ni moom la seen maam yi doon def suñu ay maam ak ba léegi nii li ñuy dund mu jël ko wan leen ka ne leen xaaral ma wan leen li ngeen ñuy def ba xam nan lay mel ci yéen bu doon yéen lañ koy def mais tubaab yi bañ ne loolu mënuñu koo gis moom mooy la la la mauvaise foi

comment il a vécu l'expérience Pour mu ñëwee ba gars qui kii ko mu neen chot tët tët tët musuma xam ne yéen lii ngeen di quoi tu vois pourtant nit ku weex la ñu maquillé ko def ko nit ku ñul bayiko dans les rues en Allemagne muy muy dugg ci métro beeg train affaire yoy il a vécu un truc de malade Mon franchement c'est c'est un truc ouais ils font du nihilisme bugguñoo nangu mon mooy le privilège le privilège ne t'autorise pas ou ne te donne pas parce qu'en en fait es privilégié kan moi bañ un privilège ko privilège day day gonfler ton ego ça gonfle ton ego ça te met à l'aise t'as vu t'es tu es au centre du monde a ngi dégg euh, euh, beauté ah ñan ñoo yore les magazines de beauté ñan ñooy décrit les critères de beauté dans le monde ñoom la ku rafet ñoom ñoo wax kan mooy ku rafet ak kan mooy ku ñaaw mais ce n'est pas vous les Noirs qui détenez les critères de beauté dans le monde. C'est à qui appartiennent les magazines de beauté, à qui appartiennent les grandes marques. Tu vois, qui définissent comment, quel corps il faut avoir, quel teint il faut avoir, quel genre de cheveux qu'il faut avoir pour rentrer dans les critères de beauté. Pour vous dire que ça nous a tous atteints, la plupart de nos femmes noires, pour se sentir belles, sont obligées de mettre des cheveux, des perruques, de blanc. parce qu'en fait, ils veulent, veulent pas admettre qu'en fait, que c'est une partie de l'aliénation voilà Ousmane Ba Ousmane tout à l'heure parce que tu nga tout à l'heure aussi j'ai vu ton appel et euh, je vais te rappeler peut-être demain voilà quoi mon frère j'espère que tu vas bien et j'espère que tu viens pas d'arriver <laughs> donc voilà tellement elles sont aliénées qu'elles vont jusqu'à justement se dire en fait non c'est pas vrai c'est pas vrai non euh, euh, non, c'est juste un style, c'est juste de la beauté tout, nangam, nangam, mais ça n'a rien à voir avec de l'aliénation. Bah, bah, tout ça. Tout à fait, parce qu'en fait, ils veulent refuser d'admettre qu'en fait, on est aliéné, on a un problème psychologique. On a un problème psychologique. Daniouara, Lolo, euh, il faut que nous fassions pour nous soigner, on doit se soigner. On doit se soigner, mais littéralement, quoi. C'est-à-dire que... Euh, je ne veux pas pousser le truc au radicalisme, mais franchement, regardez et constatez qu'en fait, il y aurait les critères de beauté. Ce sont les blancs. C'est eux qui ont les critères de beauté. C'est eux qui décrivent les critères de beauté. C'est pas vous les noirs, ou un africain, ou vous les africains qui avez des magazines de beauté. même s'il y en a, vous dominez pas les critères de beauté mondiaux ou mondial c'est pas vous qui définissez nan la femme war a rafetee wala nan la góor war a rafetee ñoom ñoo di ñoom ñoo ko yoree parce que ñoom ñooy waat suprémaciste waa la suprématie blanche c'est eux leurs femmes qui sont belles ils sont déc elles sont décrites comme belles d'accord ñoom ñooy solo solo yi wax ni àdduna bi ñii ñëpp nii la ñu war a solo euh, euh, même au niveau allez nañu jugee niveau mode ak niveau critère de beauté niveau sexualité même niveau sexualité ñoom ñoo leen di wax nag nga ngeen di fóonee jigéen ñoom ñoo ko fiy fësal naka ngay sëyee ñoom ñoo ko fi fësal ba ñu ñu ñuul yu bëri dañuy toppandoo li tubaab bi di defee la ñuy defee et eh, come and prove me wrong ñëw leen rek ngeen na ma li may wax nii du dëgg na ma kenn wax ni li may wax nii du dëgg ñoom ñooy fësal li nga xamante ni moom mooy façon sëy ba àdduna bi ñëpp dañuy copier naka la ñuy sëyee mun nga euh, dem ci àdduna bi laaj leen euh, naka ngay fóonante ñu commencé di def fóonante comme tubaab yi ni ñ ko defee seen film avant tout le def sen film yi ngeen ni lañ hein? les actes sexuels qu'on fait aujourd'hui que la nouvelle génération fait aujourd'hui vous croyez que nos ancêtres faisaient la même chose est-ce que vous croyez que nos ancêtres faisaient la même chose évidemment que non qui a inventé qui a amené ce genre de pratique hein? l'homosexualité vous croyez que c'est nos ancêtres qui pratiquaient l'homosexualité non qui a amené ce genre de pratique bah voilà eh tu vois ce que je veux dire donc soit il faut que vous on ne peut pas avancer l'Afrique où les noirs ne peuvent ou le Sénégal particulièrement ou les sénégalaises les sénégalais ne peuvent pas construire un Sénégal nouveau sans sans s'approprier ce qui nous appartient Dès le suñu Bop. tu vois Dès le suñu Bop. Eh, ba il faisait quoi Bah, il faisait quoi il faisait pas, en tout cas, comme tu fais aujourd'hui. <laughs> je vais pas rentrer dans les détails. Attends, je vais pas parler de sexualité ici. Euh, non, je te dis juste que euh, euh, cette manière que ont justement les Nassarans de, de, pratiquer leur sexualité est différent. Donc on avait tout différent. D'accord On avait tout différent. Comme Nico Père Biwache on est différents d'eux. On a notre propre culture, notre propre coutume, notre propre chose. On avait une autre façon d'aborder la sexualité, etc., etc. Mais c'était pas la même manière. Ce qui est sûr, on a tous hein, euh, la même manière de procréer, c'est-à-dire que c'est une pénétration entre hommes et femmes. Il y a pénétration, ça c'est clair. Je remets pas ça en doute. Mais il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire et une manière de de, de de, consommer l'acte, en fait. Et il y a des manières bestiales euh, de consommer l'acte qui ne viennent pas de nous. C'est ce que je dis, Diatou Binouche. je ne peux pas développer euh, la sexualité ici. Hein. En fait, on ne parle pas de ça, ce n'est pas le sujet. Donc, suprématie, en fait, la suprématie blanche veut que, veut que en fait, vous pensez avec l'esprit et vous voyez le monde avec leurs yeux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vous ont donné leurs yeux et ils vous ont donné leur cerveau. Ce qui fait que vous voyez à travers un là dans euh, la plupart des Noirs, ils ont la mentalité des Grecs aujourd'hui. Ils pensent comme les Grecs, ils ont la mentalité grecque-romaine et ils n'ont plus la mentalité africaine pure. Il faut qu'on revienne à ça. Sinon, on est voué à disparaître. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible, que disparition n'est pas possible, parce qu'en fait, les Amérindiens, on les a exterminés, ils ont disparu. Beaucoup de peuples ont disparu. Nous failli. L'inspection, mon pote, nous failli comment je vois les choses. Euh, si on ne fait pas quelque chose, on va tous à l'instruction. Ça, c'est clair et net. Parce qu'avec la toubabisation que je suis en train de voir et qu'on accepte volontiers par rapport à un complexe qu'on a euh, sur euh, nos langues, nos cultures, on va à l'instruction directe. quoi. Donc, comprendre le meilleur. Brainwatch, oui, bien sûr. pour comprendre le meilleur, comprendre le. Pour comprendre le. Ah, man, euh, c'était un rappel parce que on a trois lives moi mon live yu mes premiers live c'était sur la suprématie blanche les trois premiers lives que j'ai fait de ma vie par rapport à, au live que je fais, c'était sur la suprématie blanche. et J'en ai fait trois invité euh, euh, Oustas, Imam Cheikh Oumar Diagne, Ahmed Baila, Diop duggoon aussi ñu waxtaan ci waxtaan mu indi ci euh, ay ki yu am solo donc euh, là c'est un rappel que je refais encore et indi ci cette fois-ci Père Ousmane Dramé mu gëna léral leeral mbir mi voilà donc euh, ñëwaat ci nak wax deug yalla dafa melni ni bu yàqu la parce que man je préfère gars ñuy déglu live yi di ci jang dem approuver xam-xam bi parce que ñëwaat di répéter la même chose à chaque fois day dem ba day sof dal xam nga day dem ba man sax damay fatigué lay wala ça aucune importance te di non, donc euh, bëgg vraiment ñu ñu jël live en compte parce que voilà quoi ñu ñu ñu ñu parce que bu ñu demee ba père bu ni di confirmer ak âge ak limu xam ci di confirmer c'est-à-dire que franchement ñu ngi ci dara ñu ngi ci dara ci donc euh, dañuy jang ci live dem diko approuver jël xalé yi di leen teg ci kanamu live ñukay sétane ah oui parce que waxuñu fi dara lo xamanteni ni mun naa xalé donc xalé yi nañuy taxaw ci sama live yi di sétane man xalé yi mo tax may wax donc euh, mohammed El Bachir xamna ni yow di nga jël xalé yi di ko tek ci ci kanamu télé yi ku melni Fadialo ma sœur dina jël aussi ay domam di len partager live yi euh bëgg na aussi képp ku am dom rek ngeen jël seen doom yi teg leen ci kanamu live yi ñuy seetaan sama live yi surtout ñuy déglu parce que man du ma mës a wax loo xamante ni dina yàq seen xel dama leen yee ci yu bari donc euh, c'est ça le but man les adultes ne m'intéressent guère même si bëgg naa ñuy ñëw xale yi ñoo ma tax di wax wala bokk ñu ci mënul teg seen doom ci kanamu live yi waaw ngeen jël live yi li ngeen ci mën a jàng ngeen jàngal ko seen doom yi ngeen partagé ko jox ko xale yi ne leen xale yi lii la ak lii ak lii lii bu leen wax sax ni ma jëy moo ko wax mais ngeen ne leen man lii ak lii ak lii quoi pour ñu mën a avancer parce que le combat est sérieux sinon rek du baax des waaye yéen ñëpp gis ngeen l'état du Sénégal yéen ñëpp gis ngeen l'état de l'Afrique yéen ñëpp gis ngeen ni yéen ñëpp xam ngeen ni nasaraan si il veut vous exterminer à travers les vaccins à travers les médicaments à travers xam nga à travers euh, la bouffe à travers les OGM à travers euh, euh, les les les maladies les nouvelles maladies les parasites etc. cetera yéen ñëpp xam ngeen ko umpu du ma jëy moom mooy yokk yéen ñëpp xam ngeen ni lii gars yi naral ñu nii du jàmm xam ngeen ko. négliger ko rek toog jàpp sa ñàmbur rek mooy boo yaa ngi xaru dangeen ngeen xaru te xaru boobu nag yàlla du ko baale parce que ñi jàng yéen ñëpp xam ngeen ni yàlla baalewul xaru xaru baaxul te lii xaru la boo jugul fippu maanaam yaa ngi bàyyi ñu lay rey te loolu daal wax dëgg yàlla xaru la daal man daal maa loolu laa amoon lu may wax te man nag bugguma dem si sama borom mu naa ma da ngaa xaru parce que xamoon nga waaye defoo dara euh, sur le terrain il faut faire mais aussi bo amé ce téléphone mën a conscientiser ay nit def ko aussi ligé la yàquwul légui li anglais bi di wax rek each one teach one ne ku ku nek jangal sa morom ki xam nga each one na ku nek jangal sa morom na affaire bi jàll wa li ma samorom may nga déglu ko jàllale ko sa morom sa morom jàllale ko sa benen morom quoi mbokk yi loolu rek laa leen indi euh ma ngi leen remercier bu baax di ziar ñi nga xamanteni ñoo fi tew ñep euh, maa Mohamed ziar euh, Mohamed El Bachir di ziar encore père Ousmane Dramé di ko remercier bu baax a baax ami traiteur gëj naa la dégg gis na sa participation maa lay ziar bu Sow mon frère le roi Kanan, maa il lay ziar di le remercier euh, mon frère Krefen, Kefren, maa lay ziar bu baax di le ziar gis na sa participation rafet na Krefren gëj nañoo il faut que ñu déggante di remercier mon frère Ousmane Bab, bi nga il est venu en retard euh, Fadja, ma sœur aussi dit le remercier Maba c'est mal, le remercier Eva Dieg dit le ziar bu wér Euh, Lamine Diallo, mon frère, euh, qui est venu participer au live aujourd'hui aussi, mal les remercier. Grand CR, de le remercier. Ousmane, on va s'appeler mon frère, t'inquiète pas, demain, Inch'Allah, na le euh... Non, ami, ami, gagne la dégue trop. Mais, ami, ami, daw je ce tuto mais man man plat végétarien lay dund man dama bëgg nga may won ay ay ay ay astuce végétarien quoi yu amul yàpp yi xam nga wala yu amul jën yooyu noonu xam nga yooyu laa gën kii quoi jatu binoche maa ngi lay remercier kër yi bëri na macha allah maa ngi lay delloo kër yi di la remercier aussi Bilalou Mandiako mon frère euh, maa ngi lay remercier je te remercie frère d'être présent euh, Kanaan yaa ma gën a bëri médaille yaay suñu king mon frère tu connais déjà maa ngi lay remercier euh, ak kanati kanati kanati kuma faté fàtte waaw ami bo défé ki rek ami traiteur bo défé tuto yi avec les les trucs végétariens rek tu me tagues dessus man je veux bien voir quoi voilà quoi donc bétisson ok di te remercier aussi euh, di la ziar bu bax néné si aussi di ziar merci Nene euh, gis naa sa téway rafa na trop néné si du ma faral di la citer mang lay gis bu la am xel ñaar mang lay gis lu bare bare bare euh, di la aussi lu bare bare bare di rafetlu sa teewaay fi ci suñu live yi euh, Néné si ku bax machallah qui suit je vois je te vois Tu es souvent là té lolu voilà dañ koy dañ koy remercier rek mon frère Bira yes Bira mais Bira faut rire hein Bira ah you lost my brother what's up what's going on Time on. dama lay gëj gis quoi mais je vois que depuis deux live yaa ngi yaa lolu mom loolu moom trop jaajëf waay Betison aussi di ko remercier jaay jëf ñu ngi leen ziar et encore une fois di delloo njëkkal père Ousmane Dramé euh, le grand jazz Louis ak euh, oustad Cheikh Oumar Diagne euh, mi fi jàlloon bëggoon naa nak bu participer mais xamna dafa dafa dafa occuper mom aussi wa mais Bira dee ñu teel a rek gëj nañ la dégg gëj nañ la gis ku baax Bira mbaw hein ah, te am nga da nga don participer avant ni xam nga da ngay manquer fi quoi man équipe bi bu manquer rek damay xaw a damay xaw a quoi donc j'espère que tu vas bien liggéey bi yalla ngeen ci yalla jàppale ah may la kattan bon nga ko meuna supporter inshallah hein di le remercier bu baax sa taxawaayu tamit eh, merci Néné si t'inquiète pas on est ensemble on est plus qu'ensemble quoi loolu du dara euh, donc euh, remercier yéen ñëpp yéen ñëpp et euh, et qui de mom c'est mon cousin Gallo dabakh yad mais Gallo gis nga de ma ngi téwal sama émission bi di défar sama affaire ah xanaa prochaine fois kii moom sama imam la sama cousin la waaw mon cousin direct Gallo da bax yad euh mais Gallo xanaa prochaine fois nga dugg rek témoigner wala bok live fi daal tous les jeudis là à 19h waaw gaay xamna dinañ bëgg di déglu témoignage des gens de ma famille peut-être pour xam ay mbir wala bok euh, pour aussi euh, ñu melni yow xam nga ne yow mom mom imam la woon moom Gallo mii sama cousin bi imam dëggantaan ici en France. donc euh, xamna aussi am nga xam-xam yo tamit am na yo xam yo tamit yaa ma gën xam mun nga ñoo soti ci xam-xam bi. Nous avons ci ay mbir galo donc pas euh, à participer mon frère es dans la famille ñoo bokk yow ñoo bokk benn mbuus lolou du dañ ah j'espère que yaa ci jamm di la ziar bu mon frère Gaucher est là aussi Gaucher mang lay ziar Gauche Abdou kan ziar mon frère ça fait longtemps Gauche Nous mu demee hey jéy Gaucher Je <laughs> ne mënoon football ngi tam boy ki c'est mon c'est mon frère quoi Gaucher Abdou kii ñoo ñoo màggandoo temps booy quoi waa ji ngeen gis ni Abdou Kane mi bind gaucher salut mon frère nee na ma <laughs> gaucher euh, football eh, gauche eh, bu bon la yoroon <laughs> gauche yaa ngi mën football ba léegi nam naa la frère il ñuy déggante si messenger bi ah. ah ñuy déggante incha allah quoi on est ensemble mon frère euh, yeah yeah yeah Bira of course me too brother wa galo bo amé jot rek nga dugg ci inshallah allah rek nga baaxee ñu ay mbir waaw loolu tous les jeudis à 19h heure de Paris quoi heure de France nga dugg rek wala nga woma rek na ma ma participer comme ça gaay dégg la nga sokk leen touti xam-xam ma wax le sujet bi au préalable je te parle du sujet on en discute un petit peu wax le sujet bi à l'avance comme ça tu peux préparer un petit truc et puis après tu rentres et puis tu partages un petit peu ta connaissance avec les gens ça c'est pas un problème lu war a donc voilà di remercier euh, wa inshallah inshallah galo allah Gallo loolu lu war a la parce que am nga xam-xam imam nga yo tamit imam kay do xam li nga xam rek dal ci tokki tamit yo tamit am nga yo xam ne war nga ñu ko meuna jangal ci diine wala affaire yu non noonu ah surtout te de ma famille en plus tu vois donc war nga meuna meuna sax yok doole wala yok xam-xam mo feer Gallo dabax Yade ma lay ziar di le remercier bu baax Gallo jaajëf euh yi man may leen musique bok ñu tagato Escobar season begins. Daan jëf daan jëf tàggatoo. And we ain't posing for no pictures in 2018. Candy shit only. maa remercier di leen jox daj dox daje euh, jeudi prochain à 19h euh, en espérant que voilà que xaw nak thème bi may aborder nak mais incha dina ñëw dans la semaine et nous aborder thème bu bax ñu jëm ni rek crescendo yok yok yok yok voilà ñun ni rek lañuy def dañu wacc mukk dañuy yéeg rek euh, donc di leen remercier di leen jox rendez-vous jeudi prochain euh, en bonne santé en bonne et du forme euh, j'espère que la live vous a plu Lamine Diallo maa ngi lay ziar bu baax ah, Lamine gis nga la fa de Je <laughs> may len ma 9 9 9 9 9 ñu tagato voilà bu len ragal ci neuf yi nag Je neuf Sénégal finest Wow. finest Yama ma finest parce que da doon cité ay ay ay deku africain ba mu sine cité Sénégal finest manam Dal, dañ len beral loxo yalla dañ len beral loxo Sénégal Dal. xam nga finest quoi voilà quoi yalla da nga fine quoi da ngeen les best quoi les meilleurs quoi wala bok